Merci d'être avec nous sur Télévision Futur Média. On se retrouve pour un tout nouveau rendez-vous fashion musique. Euh, ñu ngi leen di nuyu balaa ñu leen di expliquer concept bi ak fu ngeen mënti nekk di leen ziar di leen ñaanal euh, jàmm yéen ñi àndandoo ak ñun ci télévision Futur euh, Média on se retrouve désormais chaque samedi soir pour un xam nga actuellement yi ñu xewal bokk na ci ñu tuddee moo gën a tendance yi gën a tendance nag mooy yi gën a fashion c'est pas pour rien foo xalaat ñi xamante ni ñoo xew ñi nga xamante ni ñoo tendance moo tax désormais chaque samedi soir Kebs ak man on vous retrouve en direct ci télévision Futur Média pour fashion musique Fashion Musique Pape Cheikh ni nga ko waxee ñu ngi nuyu téléspectateurs yi seetaan yëpp comme tu l'as si bien dit rendez boo xamante ne la rendez-vous pris à partir d'aujourd'hui ci samedi bi lépp lu fashion dégg ngeen ko ci générique bi ñëw ci ñaw yu fashion mode bu fashion musique bu fashion la musique adoucit les te tey jii dañ ko fas yéene fësal mm. wone ko ce sera un rendez boo xam ne à ne pas manquer lay doon tous les samedis lay doon Pape Cheikh Diallo ñuy jox rendez-vous téléspectateurs yëpp fas yéene leen andi ci lépp loo xam ne rek lu fashion bu la neex lay nekk que ñu ngi ci période tàngaay il fait tellement chaud donc fi ngeen ñuy seetaanee yéen a xama ah. Euh, bu la neexee ci biir salle bi bu la neexee ci ëtt bi bu la neexee ci biti euh, féexlu en même temps di béggal seen bopp parce que euh, ñu ngi toll nag ci vacances premier numéro bi dafa tombé ak ñu nekk ci été période bi ku ci nekk yaa ngi xalaat naka ngay def ba mën a dund a 100 pour cent yi xale yi pare nañu ay pare nañu seen ay examen pare nañu lépp donc ñu ngi ci ñu ngi ci diggu xolu vacances yi en fait. diggu xolu vacances au cœur des <laughs> ah ah. Ah, nag dafa tàng. toog jàkkaarloog seen télé uh-huh. ñu andi leen ci yu fashion non seulement du musique kese uh-huh. mais dañuy ñëw ci mode ñëw ci lépp loo xamante ne lu fashion la te ni nga ko waxee noonu la uh-huh. ñëpp a ngi toog ràcc toog di seetaan voilà euh, télévision Média samedi bu jot rendez-vous pris on espère que bu émission bi jàllee dina taw parce que dafa tàng te ba léegi nag tawagul benn yoon la la la xaw a rek je crois kon ñi ngi ñaana pour que taw bi gaaw ñëw mais en manqué te ci mhm. kanam tuuti dinañ dérouler ñëw ci domaine yëpp yi nga xam ne dafa intéressé ñi toog di seetaan parce que nag dëkk bi bëri na stress xam nga problème bi bëri ko diisal dañ ko bëgg a dañ ko bëgg a oyofal euh, tout au long de de cette de cette soirée alors ci programme bi am na ay invité yoo xamante ni dinañu rejoindre euh, bu ca kanamee tuuti ci euh, plateau bi mënuñoo invité tey ci premier numéro bi mhm. artistes yi nga xamante ni ñoo fashion di def musique bu fashion mhm. mais jëlagum nañ ci quelque au fur et mesure ñuy dem dinañ leen recevoir ñoom ñëpp comme ça euh, au sortir de cette euh, première saison euh, ci période de vacances yi xëj na ñu am tube de l'été tube de l'été daf ciy génn parce que déjà initié nañ lu am solo mu di top 5. Mm. teg les musiques du moment bi nga xam ne moom moo fashion moom la nit ñi di déglu moom la te nit ñëpp bëgg. Mm. mélomanes yi te nag Sénégal ak àdduna ñëppay ay mélomanes. Mm-hmm. parce que ñëppay déglu musique euh, ci biir émission bi également Pape Cheikh dina am lu am solo moo di nag dinañu fësal également suñu styliste yi seen savoir faire. Mm. suñu tailleur yi nga xam ne dañoo xarañ kon nag bañ nañ ko ba ni fashion ak musique. c'est deux yoo xamante local yaa ngi fàttaliku yaa woote woon la mode de A à Z ça va revenir parce que tey dinañu découvrir non tu m'avais donné le nom bah oui yaa ma wutaloon tur bi <laughs> quand même mais quand même xuloo ah. <laughs> fii lañ jubóowee ci plateau bi dégg nga jubóo voilà <laughs> alors donc dinañu waxtaanee aussi mode et que modèle yi ngeen gis euh, dinañ leen ko mën a may euh, en direct ci émission bi on va découvrir quelques modèles euh, yoo xamante ni dañ leen koy wan bu ca kanam mais des artistes vont nous rejoindre mm-hmm. tout au long de cette émission mais mënuñoo commencer te duñu xalaat koo xamante ni dafa bokkoon ci musique àdduna ràññee woon ko mu jóge fii bërki démb ñun itam ku ne xam ne ni Sénégal dëkku mélomane la et que mm-hmm. bokk na ci woykat yi nga xam ne ni dëkkuñu fii mais déglu euh, la grande Aretha Franklin ni nga ko waxee Pape xel yi dem na ci duo bi mu defoon nag euh, George Michael nga xam ne marqué na mélomane yëpp à travers le monde. mu nekk ndaanaan boo xam ne ca kaw lay way. Euh, te Amérique ñàkk nañu mais àdduna ñàkk. yenn saa yi mu way jox ma jox ma géwélu Sénégal yu mag yi. dëgg parce que ñoom seen way day am mbaar. mbëpp day am njolli day am mbëfër ak mbëfër. yooyu yëpp a ngi ci parce que nag fii la jógee. <laughs> xam nga fii la jógee seen origine yi da leen di topp ndax ci musique bi nga xam ne moo doon musique de prédilection mu di jazz di blues mm. bu yuuxoo mu dem ñëpp xam ko loolu dafa nekk origine am Afrique la dafa leer donc Aretha Franklin bu génnee àdduna jaadu na ñu ubbee émission bi Aretha Franklin ce sera euh, euh, une manière de lui rendre dernier hommage voilà ñun tamit dañu koy rendre hommage fii ci Sénégal parce qu'il a beaucoup fait pour la musique euh, gospel soul music Jay-Z comme bi Kebs wax léegi nii elle a beaucoup fait sax nekkoon waykatu président aux États-Unis Barack mm-hmm. exemple am na spectacle boo xamee on va regarder ça en même temps euh, keroog bi nga xamee ni mu ngi woy euh, euh, barak dafa jooy àndandoo ak ak jabar ji mhm. mu ñëwaat ci benn woy boo xamante ni bi mu koy woy c'était au début des années soixante-dix mu tuddee ko you make me feel like a natural woman way la boo xamante ni ça a marqué plus d'un donc tey ci premier numéro fashion musique pourquoi pas ñu rendre ko hommage Kebs ak man ci télévision Futur Média on met un extrait de prestation bi nga xam ne ni defoon na ko ci kanamu euh, Barack Obama euh, ci woyam boobule et puis on va revenir euh, ci reportage boo xam ne ni rédaction bu télévision Futur Média defoon na ko ci Aretha Franklin You made me feel so. voilà c'est une façon pour ñun ñu rendre ko hommage ñun tamit euh, parce que icône la woon ci euh, monde soul mu ngi tudd Aretha Franklin def na ah. déjà ñaari fan euh, bi ngeen di dégg ñu koy waxtaane peut-être am na ñu ko xamul waaye ñu ko xam defe naa bëri na parce que Sénégal dëkku mélomane la wax naa ko depuis sànq mm-hmm. y a tellement de chansons yoo xamante ni souvent duñu sax comprendre paroles yi mais on aime reprendre di ko woyaat mm-hmm. Whitney Houston Céline Dion Lara Fabian on peut citer ni seen ay woy mën nga fi dëkk te doo comprendre seen ay ay paroles. Euh, mhm. da nga koy woyaat donc euh, ci bokk moo euh, ci premier numéro fashion musique on fashion la woon. Ah. ci taar bi ci <laughs> lépp. Ah. ba simi bi ci fashion rek ah. ci fashion elle était très ba tey sax booy xool mère yu bëri dañuy fàttaliku seen bopp sama yaay ak ñeneen. c'est ah dañ ko xamoon bu baax. mu nekk ndaanaan boo xamante ne yàgg na leen a bëggal. parce que nag bu njëkkoon xam nga ne musique yi la daan déglu. avant beneen beneen musique di installé wu. donc euh, dañ ko doon déglu dañ koy apprécier Sénégal bu njëkkoon on était plus euh, euh, fan de musique étrangère que musique yu ñu am fii am na ay jamono yoo xamante ni rumba congolaise lañ doon déglu. Ah, slow yi moo doon mm-hmm. cartonné. Mm-hmm. salsa moo doon cartonné. Mm-hmm. wax nga dëgg ah, en plus. yooyu moo amoon ba tax na nag maire xam nañ ko bu baax ah. maire xam nañ ko mu nekk ndaanaan boo xamante Euh, yàgg na éblouir ci voix bi nga xamante ne am na ko mhm. Aretha Franklin boo koy wax def ay duo yu bëri am notoriété boo xam ne acquérir na ko boo xoolee personnalité yi toog fi di ko rendre hommage on a euh, vu Barbara Streisand donc euh, <laughs> eh, mais mais melo mélomane nga doo meer <laughs> <laughs> donc Barbara Streisand nga xam ne moom ku ne xam na ko euh, ci euh, comédie musicale ak yeneen ak yeneen donc Aretha Franklin daal euh, repose en paix parce que musique bi li tax muy dugg ci xol comme ni nga ko waxee àlantam mhm. mooy dafa nekk musique bu source la musique bu racine la dafa jóge fii voyager dem Amérique mais ba tey rek color bi day des fii parce que fii la jóge woon donc dafay des dafay des ci ñun quoi repose en paix day des ci suñu yëf waaw da nga koy sentir yow tamit yëgal baat wàcce waat dugal génne xam nga ne loolu <laughs> rédaction rédaction bu télévision Futur Média daf ci defoon euh, benn euh, reportage keroog bi nga xam ni dégg nañu ni euh, Aretha Franklin génn na àddina on va revenir sur ce reportage ngeen seetaan ko ça vous permettra mhm. ngeen gën a mën a fàttaliku tuuti rek ci parcours diva bi nga xam ni icône la woon fépp ci àddina mu nekkoon soxna su mag ci wàllu musique Aretha Louise Franklin moom doomi Amérique boobe ami cosaan ci Afrique amoon it baat bu neex ba dafa mel ni musique ci deretam la ne ndax tubam bu njëkk ma ko génnee bi mu amee fukki at ak ñeent auteur compositeur bëggoon lool gospel sol funk rhythm blues wala boog jazz bokkoon na ci tubam yu gën a mag ay Never Loved a Man respect chain of fools wala bokk li ñu naan you make me feel like boobee nag mu génne ko ci atum 1967 ñeent fukki at ak juróom ñett gannaaw bi maanaam ci atum 2015 moom moomee ñu daan woowee euh, buuru sol nag wan àdduna wërngal këpp ne baat bi ba nëga mi ngi fi ak tubam boobee di you make me feel like mu daal di koy wayaat ci kanamu président américain ba woon di Barack Obama ak soxnaam Obama sax ñu gisoon ca rangoon ya di wadd juróom ñaar fukk ak juróomi million ci disk mu jaay ko amit raaya yu am solo fukk ak juróom ñett Grammy Awards église papam boobee nga xamante ni fa la doore jaare ko ci sommet de char ay tube yu am solo mu génnee ko soxna su dogu woon la tamit eh, ci wàllu jigéen ñi droit civique moom moomee nag daal di juddoo ca Memphis ca États-Unis dem na tey ci juróom-ñaar fukki atam ak eh, juróom-benn bàyyi gannaaw nag wéetal itamit lool ñu sopp gospel voilà donc c'est un reportage réalisé par la rédaction Fatou Kiné Dem ñu ngi koy gërëm keroog bi nga xam ne Aretha Franklin euh, génn na àddina euh, ci la ñu ko defoon euh, ñu ñëwaatoon ci pour ñun itam rendre ko hommage parce que moom la ñu njëkkee tey ci fashion musique si vous nous rejoignez rendez-vous bu bees désormais chaque samedi soir man ak Kebs ñu gunge leen ci télévision Futur Média laata ñuy àndandoo ci guddi gi ak DJ Boops ci Dakar ne dort pa donc ambiance discothèque la ñu koy jox parce que fashion musique ko tuddee surtout que période bi nga xam commencé nañu ko dafa tombé ak été et que été ki nga xam ne ni jamono la boo xamante ni artistes yi kenn ku ci nekk da ngay dox ci euh, créer tube euh, loolu mooy indi euh, li tubaab bi tuddee tube de l'été tube de l'été mu nekk loo xam ne jax na waxtaane parce que léeg-léeg nga gis ñu jub vacances benn tube génn cartonné bu ñu remonté ba jamonoy ay lambada oui ah Cherando se foi boobu noonu ak yeneen ak yeneen mu nekk tube de l'été ñu jaay ay millions c'est des mais tube de l'été c'est indémodable day ñëw day dem des fois ñu ne tube Euh, Kleenex la parce que mm. day dem dañ koy utiliser bàyyi ko mais day rester. parce qu'il y a des yoo xamante ni nekk tube de l'été moo tax àdduna yëpp xam ne moom moo àndandoo ak li nga xam ne moom moo di créer musique boo xam ne day am couleur mhm. rythmé bu ko defee nag nit ñi adapté ko parce que c'est les vacances mhm. te nit ñi dañuy relax jàng boo gis am na àllarba mhm. loolu moo andi tube de l'été ba tax na nag top 5 bi moo tax mu am pertinence bu baax a baax voilà expliquer top 5 bi naka lay demee désormais mhm. euh, ci fashion euh, musique j'aimerais euh, dans la foulée ci waxtaan bi nii mhm. rek bu fekkee ci ginnaaw mën nañu wutal pata pata bu ko defee ñu def souvenir tube de mhm. l'été si possible ah ñu ñu waat ci ambiance yooyu nga xamante ni ay woy la yu ñu daan feccloo moo xam Sénégal moo xam yeneen dëkk yi lambada charambiti fooy xale yi xamuñu yooyu xale yi xamuñu yooyu bu ko defee bu ca kanamee nag ñu doog a ñëw ci xale yi xewal ah, ah. kon yes ba muy moom <laughs> ba muy moom fëlaale def lu ñu neex yooyu yëpp dinañ ci ñëw parce que am na ñoo xamante ni ñoom ñoo xew actuellement <laughs> euh, euh, genn wàll gi ñëw nañu ñu ci des on les retrouve euh, ci émission yi di ñëw Aïda Samb mhm. sera avec nous Bastiung mhm. sera avec nous Momo Dieng sera avec nous ak yeneen surprise yoo xamante ni ñu ngi leen di xaar tey ci fashion musique mhm. mais tube de l'été yàgg na am tube de l'été yàgg na am Pape Cheikh moom laa la wax léegi am na yoo xam ne day rester c'est indémodable du mus changer dafay rester mais hmm. dafay baax ñu revenir aat ci époque boobu hmm. tegaat ko ci contexte bi nga xam ne moom la nekkoon bi nga xam ne ba lañ koy créer muy xale muy mag muy ndaw dafay wër àdduna parce que bu ñu waxee tube de l'été day nekk loo xam ne mondialement la ko nit ñi di di fekkee di ko dégloo euh, ñu ci bëri bu ñu amee ay euh, euh, li nga xam ne moom moo di satisfaction ci wàllu musique hmm. am ay distinction d'habitude day jóge ci tube de l'été parce que day marqué bu baax yàgg naa am. même même en France bu ñu bu ñu demee ba nga xamante ni euh, toll nañu euh, ci euh, vacances di waaj ñëw. Mm-hmm. dañuy jël kenn def tout ba make. way bi mu nekk tube de l'été c'est un système boo xamante ni souvent ex-adex moom moo koy expliqué uh-huh. mais damay reetaan à un point boo demee ba ci biir tu te rends compte que aussi parallèlement c'est un système c'est un système la boo xamante ni il faut nga miin ko euh, pour xam naka la ñuy defaree mm-hmm. tube de l'été ah waaw maîtriser rouage yi communication bu mag moom moo am ci ginnaaw mm-hmm. pour jël pousse dañuy àndandoo d'accord ni lii mooy nekk tube de l'été bi mm-hmm. donc bu ñu tegee rouage yi nga xam ne moom mooy dem rek dañ koy teg rek mu daal di glisser nekk tube de l'été de l'été euh, Sénégal itam nekk dëkk boo xamante ne yàgg nañoo am ay tube de Euh, bébé ay ci pir ci pir capar capar askanu lawbe Fallou Dieng yàgg na ko fee def yeneen ak yeneen buñ ko fi doon lem duñ fi jógee mais sa waay yow fàtte woo waa ah? ah déedéet man foogoon naa ni fàtte nga ndax ci àdduna <laughs> non moo dañ lay wax dañ naan la da ngay enraciné wu ci li nga xam ne moom moo fi nekkoon pare nga am ouverture lool lool moom mooy àdduna kon yes voilà donc ci kanam euh, ñu sànneeku. waaw c'est ça loolu la xale yi loolu moo xew nag léegi est bu nee sax ay mag la ñu léegi sax waaye bon euh, on est obligé comme jamono bu nekk ak lu ciy xew il faut que ñu ànd ci mouvance boobu fëlaale sànneeku def lu ñu neex voilà dóor bu ba muy moom quoi <laughs> y a y a y a y a y a y a y a beaucoup de gens Euh, qui réagissent li neex nag ci fashion musique bi mooy mhm. euh, moo xam euh, ngeen yore téléphone di ngeen mën a participer en direct mhm. mais en même temps émission la boo xam dafa dafay interactive ci côté digital bi mhm. hashtag bi tey ci réseau sociaux yi mooy fashion musique envoyé vos commentaires dites-nous kan ngeen yaakaar ni ren moom moon na a def tube de l'été bu ko defee à partir de samedi prochain ñu doog a tàmbali suñu top cinq donc muy Facebook muy Twitter muy Instagram di ngeen mën itam di dundu Euh, coulisses yu fashion musique parce que mhm. artistes yaa ngi ci ginnaaw di préparé entre mhm. maquillage ak sañse mhm. mais euh, dress code bi décontracté keps en jean je suis en t-shirt vous aussi faites comme si euh, vous étiez ci ambiance su vacances puisqu'il fait tellement chaud moo tax noonu la ñu bëggee ngeen dundee fashion musique premier numéro ci télévision Futur Média beaucoup de surprises vous attendent numéro téléphone yi itam baax na ñu fàttaliwaat ko téléspectateurs absolument mu nekk de votre 88 628 65 65 88 628 04 05. Pape Cheikh ba noppi itam à l'international ils ont la possibilité de participer à l'émission émission interactive la. Mhm. yaa ko wax léegi ba noppi itam dafa am leneen lu am solo. Mhm. am nga nga seetaan euh, émission. Mhm. ba noppi ci biir. mooy wane ne dañuy fësal euh, suñu tailleur yi ndax nag Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne tailleur yi. defe naa ñooy ñooy ñooy P. Ah. ñooy numéro un. Euh, musique bu fashion dafa war a ànd ak mode bu fashion boobu fashion parce que mode tamit euh, dafa nekk nee naa la l'un n'exclut pas l'autre mm. ñaari élément yoo xam ne la mm. euh, dañ dañu lié wu forcément mu di mode ak musique euh, ba tax na nag dinañu indi ay mannequin ci kanam mm. parce li nga xam ne moom moo di rek défilé tailleur wane seen créativité mannequin ñëw wane ñoom itam parce que tam nag nag euh, yëre bu rafetee ñu ñaw ko dagg ko ba pare ci dagg beeg ci lépp la mhm. waaye ki koy wane itam am na solo ñoom mhm. itam ba tey ci système bi la rek mhm. euh, bu paree nag ñu jël ñaw bi maye ko dañuy maye ay ñaw te tabaski baa ngi jub si kon loolu am na solo euh, bouger rek erreur la na ñëpp toog seetaan ndax nag c'est le rendez day nekk le must le must ci Sénégal boo xamante ne bii tous les samedis je serai avec euh, Pape Cheikh incha allah ñu andi leen yu bees ci mode ak ci musique Pape. voilà ki ñu inspiré euh, mooy ki waxoon wutal sa mbub bu fashion wutal sa xarit yu fashion wutal émission bu fashion voilà donc moo waxoon waxu waxu fashion euh, dañuy dañuy dañuy dañuy tàmbali ak mhm. téléphone bi mhm. jël koo xamante ni d'abord mhm. dina wax xalaatam Euh, ci ki ñuy tàmbalee muy Aretha Franklin. Mhm. yoon la lu toll ni mhm. télévision Futur Média euh, rendre ko hommage comme toutes les télévisions du monde l'ont fait mhm. euh, mais après waxtaan ci ay surprise ñu jël ko léegi nii téléphone. xaaral ma am ku ma la paas dama surprise quoi dama bëgg ah, ay cof voilà ay suspense affaire yooyu noonu xam nga ay ñambaxtaan yooyu nga xamante ni gars yi dañu koy xaar euh, ku ku ku ku ku déglu léegi nii euh, mhm. di ngeen dégg euh, ki ñuy bëgg a waxal léegi nii ci téléphone bi donc je vais compter jusqu'à trois mhm. ñun ñaar di ñu waxandoo alo d'accord yéen tamit seen kër bu leen neexee ngeen waxandoo allo ak ñun comme ça ngeen découvrir kan la ñuy bëgg a waxal ci téléphone bi vous êtes prêts est-ce que pare ngeen. pare nañu commence le décompte mais ñun amuñu sax public ah c'est ça. wala non dañuy uti public wala ñu jëli ñuy taxaw di seetaan. <laughs> ok <laughs> on va on va on va décompter euh, uh-huh. est-ce que mën ngeen ñu décompter ci ginnaaw. jaxu décompteel ngay xoolee ok. <laughs> à partir de cinq la commencer d'accord. Uh-huh. yéen ñii seetaan tamit seen biir kër décompter leen ak ñun. Uh-huh. à partir de cinq d'accord. cinq. quatre. mooy seen lii. ak a yooy. ma ne ko ak a yooy tàngaay tàngaay bee sonal. a <laughs> yooy. yéen dafa mel ni tàngaay bee leen sonal ah. na bon léegi on va laisser le soin aux téléspectateurs de de décompter pour nous décompter leen seen ay biir kër ñun tam ñu décompter euh, fii ñu taxaw ce sera à partir de cinq cinq. quatre quatre trois. non déggal didi rek <laughs> deux. ak a yooy. seen décompte bi seen décompte bi dafa dafa tooy léegi comme mënagu leen tàngaay bee leen jàpp on va s'asseoir ñu continuer ba ngeen am doole décompté ñu dog leen wax kan a ba euh, tey Pape Cheikh am na actualité yu bëri yoo xam ne fas yéene nañ ko waxtaane mm, tey mm. Euh, comme ni ko waxee Viviane mi ci actualité mm-hmm. ah, euh, ki nga xam ne Carlou D nañ commencé Viviane Viviane andi na lu bees moom itam si ci musique am mm-hmm. andi na ci benn touche boo xam ne fraîcheur bu am solo mm-hmm. boo xamante ne tourisme. et puis et puis et puis loo ci xamul. Mhm. Euh, elle a été nominée ci benn ah. awards boo xamante ne on va montrer ça aux téléspectateurs comme vous le voyez mhm. derrière euh, ci écran bi euh, compétition bi toutes les infos dañu koy joxe d'habitude suba gi pour ngeen xam naka ngeen mën a def pour voter ko pour jàppale ko. ah oui Viviane qui a beaucoup de talent. Mhm. moom tamit ci été bi dugal na fashion music am. Simbam la ko tuddee. Simbam nag pour la petite histoire orchestre Baobab wayoon na ko à l'époque. nga xam ne ñun ñoo Euh, Nigéria réussir nañ ko yeneen dëkk yi réussir nañ ko ñun ñi ngi ci mhm. parce que tamit li nga xam ne moom la ñuy def am na solo boo xoolee mhm. Viviane depuis bi mu àndee benn touche ci wuyu ma mhm. dafa àndiwaat leneen loo xamante ne benn fraîcheur Viviane dafa mbappat nag mm. fi mu jaar dafa dafa am solo dafa jaar super étoile ah jaar euh, ci grande muy grande école boo xamante ne boo fa jaaree mooy mbappat euh, ci làmb boo ko fa jaaree boo woyee wala nga tari rek day feeñ dañ koy xam mu jaar fa yàgg di woy di def variété variété richesse bi dafay ñëwaat dab ko mhm. ba noppi itam mu xam ne nag monde bi léegi c'est devenu petit mhm. le monde est devenu un village planétaire mhm. donc Viviane euh, loolu la teel a comprendre ba pare dañu war a delluwaat ci li nga xam ne moom la ñu moom jël ko ba pare am ouverture mhm. te moom loolu lay def moo tax nag ba noppi ñu nominé ko buñ ko nominé Sénégal la ñu nominé mhm. Sénégal la ci war a jàpp ñëpp voteel ko euh, voilà voilà na beneen leneen lu bees daal ci ci ci rythme am daal yaa ngi ko dégg voilà voilà mhm. donc on va on va on va écouter dans quelques minutes euh, euh, titre bu bees bi nga xamante ni génn na ko tuddee ko Simbam reprise orchestra Baobab mais daf ko woy ba woy bi à la kuli la force dafay dugg ci suñu hit parade mooy suñu top 5 bi nga nga xamante ni euh, dañu koy tàmbali pour euh, bu ñu dee jeexal euh, saison wu été bu fashion musique ñu xam ban mooy tube de l'été mën ngeen di voter mën ngeen di ñu proposer mën ngeen di ñu wax mais ñun bi ñu tànnagum en tout cas mooy titre bi ñuy bëgg a déglu ak Viviane ce sera pour tout à l'heure il y aura d'autres infos musique yu ñu leen bëgg a baaxee mais d'abord dootuma décompter on va juste prendre ki nga xam ne ni moom moo njëkk a woote ci fashion musique bu tay bi on va décompter ñun ñaar à mm-hmm. un deux, deux trois allô. allô. allô fashion fashion music. Youssou Ndour fashion artiste. borom fashion. bi bi bi bi bi baax na moom. Ah. bi bi bi bi dafa garaaw de. <laughs> waaw bi baax na bi moom fi ngeen génn tey. Ah. Ah. bi baax na. donc fashion musique fashion animateur wow. fashion téléspectateur fashion, fashion artiste. artiste. non vraiment. Uh-huh. bi baax na. bi baax na daal foofu laa mën a yem. <laughs> jeex na daal fii baax na. fii baax na kon borom fashion moo apprécié kon baax na. donc fashion mais mais mais li tax ma gën a woote. Mm-hmm. dangeen ko commencé. Mm-hmm. ak nit ku màgg ku fi jóge mm-hmm. muy Aretha Franklin di waykat bi gën a mag wala bokk ci juróomi waykat yi gën a mag àdduna doon nit koo xame ni que ñun ñëpp li tax ñu bëgg way presque ci moom la jóge euh, ñu koy jaale waa àdduna yëpp Amérique di jaale waa Afrique ndax ci sunu dret la bokk te nekkoon na nit koo xam ni que vraiment bëggoon nañ koo gis lool ñëpp a ko doon bëgg a gis man mii aw ma chance dem ba gis ko seetaan concert wala dara. Mhm. mais xam naa ni àdduna bi musique bi ñàkk na mag a mag a donc saluer vraiment mémoire am mhm. Hmm? Mhm. di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana amiin amiin kooku moom dama ko bëggoon a témoigner d'abord ndax Aretha Franklin non seulement euh, euh, nekk euh, dafa marqué Amérique Euh, ci wàllu musique parce que musique tamit dafa dem ci biir Amérique ba dajalee ko nit ñi mhm. séparation bi amoon ci njëlbeen musique dafa dem ba indiwaat nit ñi jegeyaatoo donc moom mhm. joué na ci rôle moo tax nag euh, ma ne woon naa woote pour mhm. vraiment saluer ko saluer émission bi euh, saluer moom mémoire lan moo la lan ci carrière u Franklin ah mais way yi mu way yëpp am xol mhm. ba pare nekkoon na nekkoon na nit koo xamee ni. Mhm. da dem Pape léeg-léeg. ñu ay dañoo bëgg déglu musique. Mhm. booy déglu musique rek. buy animation bi tourné une heure de temps faaw arrêta Franklin bokk ci. Euh, ci euh, ci programme bi loolu moo lay wan dimension mu nekkoon mm-hmm. benn nag li ma gën a marqué mooy mm-hmm. dafa nekkul koo xame ni dama dégg ci ay seede mm-hmm. ne dafa ragaloon avion ci leeru ah dundam donc bu doon tourné dégg naa ay bus bus lay wala bateau lay mën a jël pour mën a déplacé wu waaw dégg naa loolu loolu ma yéemal la na ma mais en même temps artiste mhm. aussi euh, léeg-léeg dañuy fàtte rek ni nit la. Mhm. et loolu lu ma yéem ba nga xamee ni que bëggoon naa xam. Mhm. ma tout le temps. lu waraloon loolu ba euh, moo tax tamit ñu bari mënuñu ko woon gis. parce que c'était pas facile. pour muy pro muy programmer ay ay kii daal marqué ma ci loolu. donc moom elle a beaucoup fait pour la musique euh, nekkoon activiste en même mhm. temps mhm. Euh, elle a beaucoup œuvré euh, pour mhm. ñu bañ ji toroxal nit ku ñuul et voilà loolu sa façon la woon pour nga rendre ko hommage Kebs nag moom mooy xool-xoolu ah. doo ko laaj fan lay tëgg <laughs> comme fashion musique la ñuy wax il faut ñu laaj ko ah, Youssou fan lay fan fan lay tëgg fashion ci fashion bi waaw mais am na temps yi moom programme bi moom ci bitim réew la gën a bëri bitim mhm. réew waaw ndax xam nga bon ñu ngi nekk si tournée tournée bi pratiquement jeexagul sax dafa mhm. ay dañ koy arrêté rek euh, bu du gudd noonu mais dañ koy arrêté léegi ñu ngi jëm Angleterre bu ñu jullee incha mhm. ba ca lendemain ñu ngi jëm Londres euh, Angleterre ak Allemagne pour quelques jours après dellu soit dem Islande def Angleterre ak Allemagne après dellu si voilà incha allah merci merci beaucoup kontaan nañu. <laughs> ñu ngi koy gërëm bu baax ñu ngi koy bu baax Pape Cheikh. artiste fashion artiste fashion la moom bu wootee wax rek kon defe naa ne wax ji jeex na. Mhm. li mu expliqué li mu def témoignage dafa am solo. parce que ñoom mhm. itam ay artistes lañ. Mhm. bu ñu gisee ne icône yu bëri ñi ngi dem. Euh, dafay baax ñu def li Michael Jackson dem na. Um, Whitney Houston dem na. Prince dem na. am na am na kuy na kuy tooñ naan xam euh. naa fële war naa neex parce que gars yaa ngi foofu ay ay ay Aretha Franklin <laughs> ay Michael Jackson. Ah, dafa bëgg a xool. Euh, ah, xanaa xanaa xool ndax dina am concert ba xam ñun dañuy toog ba ci kanam. <laughs> en tout ci kanam. <laughs> en tout cas kontaan nañu ci woote bi mu woote. ndax mhm. itam euh, long Angleterre moom dégg naa concert bi ñu koy préparé. bu mhm. baax mooy mhm. date bi nga xam ne moo ci topp. mu di borom fashion rek. fi mu ne nii ticket yi gars yaa ngi koy saax saaxee. ñu ngi xëccoo quoi ñu ngi xëccoo. comme fu mu dem rek ak ni mu defoon euh, Belgique. temps yi am na dara du ko dàq loolu la waxoon d'ailleurs am na ah. message boo xamante ni peut-être bu ñu amee jot uh-huh. euh, dinañ leen ko tegal tegal leen euh, extrait wu spectacle yi nga xamante ni moom euh, fashion mm-hmm. artist bi dugg léegi nii di Youssou Ndour def na ko woote mm-hmm. tey ci premier numéro fashion musique mm-hmm. yeneen fashion artist ñu ngi waaj a ñëw ci plateau bi bu ko defee ñoom itam ñu ngi dox ci mouvement su été bi ak tube de l'été mais kepp sànq ci histoire yi nga ñuy nettali bi ñuy créer ay tube de mu ngi bëgg a yàgg rappelez-vous a quelques années derrière neex Kumba Gawlo reprendre on pata pata bu Marie Myriam Makeba euh, nekkoon album international mu ah, amoon ci euh, double disque d'or amoon ci platine amoon ci oh, reconnaissance internationale on va revenir ci période boobu nga xamante ni Kumba Gawlo defoon tube de l'été puisque ñun itam euh, ñu ngi 2018 ci fashion music bi ñu ngi xool naka la ñuy génnee ci woy yi pour am tube de l'été donc pata pata Kumba Gawlo on se rappelle de jamono bi nekkee woon tube de l'été <laughs> Ninguém tem o dois que der. Ai, tchau. patapata ak Kumba Gawlo une belle reprise de Myriam Makeba moo nekkoon suñu souvenir tube de l'été et way la boo xamante ni Euh, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs wax nañu ko léegi nii taxaw na Kumba Gawlo amoon à l'époque euh, mhm. double disque d'or mhm. amoon euh, platine comme quoi album bi taxoon na ak reprise bi surtout mu am reconnaissance internationale ah mhm. ñëpp respecté ko diggante France ak Sénégal on se rappelle keroog bi nga xamante ni mu ngi ñibbisi Sénégal dañu ko jëlee aéroport ba seen kër teeru ko parce que c'était une fierté pour nous ak tube de l'été bi mu defoon à l'époque tube de ba pare Pape Cheikh mu nekk ay souvenirs yu am solo mm. ko mu gàddu distinction loolu dafa nekk yoo xam ne day resté mhm. loolu moo tax ma wax la ko sànq ba pare tube de l'été booy xool ay termes yu simple la mhm. moo yi day simple mhm. day clé gisoo day neex a capté voilà day neex a capté déggoo mi naan waajaa ngi may kii de déggoo na sakku kuta sakku peer voilà waajaa ngi may dajji c'est truc yoo xamante ne day tax yomb mm. ci dégg-dégg xale yi ci mm. dégg-dégg ñëpp facile à capter loolu day baax ci li nga xam ne moom moo di tube de l'été mm. Kumba Gawlo euh, que dire d'elle euh, jigéen boo xam ne jël disque de platine. Mm, mm. Euh, donc mu nekk euh, à l'échelle internationale loolu moom mm-hmm. moo ci am solo. voilà Miriama Keba reprise boo xamante ne amal na ko apporté na ko lu bari Pape. voilà en tout cas ñun reprise moo ñu daaxal quoi ah. c'est vrai que Angélique Kidjo ak d'autres artistes. Euh, def nañu seen version pata pata. Mm-hmm. mais ba Kumba Gawlo moo ñu neex. moo tax ñu tegal leen ko tey <laughs> ci souvenir tube de l'été à propos de Kumba Gawlo. Mm-hmm. mën naa sàcc wax leen ni actuellement mu ngi studio. on peut même vous montrer image yi ne am nañu ko. ci préparatifs yi nga xamante ni moom mu ngi ci fi mu toll tembe nag. Euh, mhm. pata pata 98 euh, la woon. baax na nag mu ñëw ak. Euh, ak lu bees tube de l'été elle est en train d'enregistrer il paraît moom Coumba Gawlo. Coumba Gawlo mi ngi enregistré et moom tout le temps dafay am dafa am fréquence bu baax ci li nga xam ne moom moo di musique bu toogee quelque temps rek day daal di génne du def espace ñu ñu dem xool ko. añe bu ñaa bari ka banque ba xaadu yee bange bange voilà bàngee xaw ma lay expliqué nii <laughs> daal dafa mel ne bambara la léegi <laughs> ane ko la ma la la la ba ma naa la ma naa la en fait Coumba Gawlo dafa traditionnel <laughs> Pape Cheikh mm, mm. ci ci ci musique am ci lépp boo dégloo Jerry Jor Ndee la mm-hmm. yaa ma gën a xam li may wax parce que musique bu la intéressé la Jerry joor Ndee ak li nga xam ne njëkk na ko def woy ko mu nekk loo xam yow maale mm-hmm. euh, te ba paxe ci lépp la koy def mooy li ma la doon wax rek dellu siwaat ci lu ñu moom téye ko ba pare am ouverture mhm. donc la diva mi ngi mhm. studio bokk na ci actualité yi nga xam ne euh, tous les samedis dinañ leen ko andil pap Cheikh donc mhm. mi ngi studio mais li muy làkk nii di ko waajal elle a fait du chemin pata pata ba fii voilà sa fait des années ñu ngi 2018 mhm. il faut quand même que le monde évolue mooy ouverture bi ñu doon wax wax naa la ko sànq mhm. te xam nga ko mooy rek enracinement plus ouverture mhm. mm, adduna bi léegi moom moo toll foofu kenn ku nekk da ngay innover di indi ay touche yu bees te moom double na daal ci boo xamee li muy làkk nga wax moom voilà donc Coumba Gawlo actuellement mu ngi studio am na keneen koo xamante ni euh, mu uh-huh. ngi studio génn na single bu yàggul muy Aïda Samb euh, pas Aïda Samb oh, Titi Titi pourquoi ma ne Aïda Samb parce que Aïda Samb gi ci plateau bi toog jàmm ak yow Aïda dinañu fekk si léegi nii ci plateau bi mais Titi euh, moom tamit euh, dellu siwaat na euh, ak single bu bees mhm. dugg na studio mu ngi préparé certainement album mais coulisses su single bi la ñu mhm. leen bëggoon tegal parce que musique bu fashion la aussi nañu ko xool mhm. voilà donc on est en train de euh, mhm. préparer pour wan leen euh, euh Titi ak mm single bi nga xam ne nii euh, def na ko moom tamit la ko la ko la ko la ko tuddee mhm. wala tamit donc coulisse su single bi lañ leen di waajo woon comme ça ngeen mën ko apprécier parce qu'elle a beaucoup de talent elle a revient en force mm-hmm. demuloon fenn sax waaye andi na lu bees daal mu nekk lu am solo àndaale look bu bees également mm-hmm. gis nañ mu def coupe boo xam ne nii def ko couleur Titi mm-hmm. rek ndaanaan la moom day woyee ca kaw waaw sañse na de ah waaw sañse dafa indi style bu bees xam nga nag dañ def fashion ak musique dafa def coupe bu baax ba pare nag euh, def ko couleur xam nga léegi dañu taamu couleur fu mën a way titi boo ko tegalee instrument yi rek bu yuuxoo nga xam ne titee ngi taxaw donc euh, je pense que élément bi pare na ñu dem xooli ko titi en studio Coumba Gawlo en studio titi ñu dem xooli ko ñëwaat voilà moom nee na jaayu ko détail quoi grossiste la ci ah. yaayey euh, Titi euh, single la bu bees ambiance studio mhm. euh, album bi certainement dina ko génne bii tamit dafay bokk ci suñu hit parade bi pour voir kan moo nara Euh, jël tube de l'été euh, ren ci euh, fashion musique bu télévision Futur Média Keps mu ngi ci ànd ak ak ak Bastiung. nga ah. xam ne moom itam dafa ñëw rek daal di génne ay feemam. génne lu fashion génne lu fashion musique bi ah, fashion. xew mu daal di xew. Mm. xew bu baax sax. Mm. mu àndandoog Titi daal di def lu am solo dégg nga tamit ba tey li ma doon wax ci tube yi Pape. Mm-hmm. dégg nga mooy yu muy employé. Ah, mooy langage yu xale yi yu simple. simple nga xam ne accessible na à ñëpp. ñu simple àdduna nañ simple blasé ay lan la lan la voilà dégg nga mu ciy wax fëlaale sax blasé blasé ñëpp lépp la ñuy blasé parce que bas mu ngi fi de nañ ma ko wool euh, mu ñëw moom teel a toog euh, euh, na bas cum ñëw comme gis nañ ko déjà ak gis nañu ko ah yegseegul d'accord donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy xaar comme sax bu yegsee mu ñëw ñu waxtaan ci li nga xame ni génn na ko terme yi xoolal terme ay ay ay la doon jël foox temps j'étais peu di jël ay affaires yoo xam ne. defi fu temps booy quoi defi fu ba mu nekk loo xamante ni dafa adduna bi paap moo toll foo xam ne. il faut que balaase rek. voilà def lu oyof quoi def lu oyof. tamit génn na single tuddee ko seen dara du lore. du mel noonu. mbëggeel ndeke mbëggeel nii la neex Seck Ndiaye ak Atoumane Ndiaye. kon xamoo musique nee na ku jàpp jaan doo faale ji déglul bi nga xam bar bi bëgg da ngeen di sóob seen dara du lore <laughs> mbalaxuma merengeew ma damay musique ñi ko fiin jël déglu saa bu xëyee jox leen ñii bind bind ñii xas-xas ñii lor lore ñii wor wore le message est tellement euh, euh, boo dégloo itam ambiance su euh, way bi tu te rends compte que bii tamit war naa mën a nekk tube de l'été parce que waa ji ko way bête de la waa ko way Baye Fall la et puis bi ku ne def ciy bopp euh, puisque léegi Sénégal tendance bi non seulement kon yees la mais tendance bi ñëpp a am noonu voilà léegi dëkk bi ñëpp am noonu je vois mes enfants bi damaa bëri noonu donc noonu <laughs> noonu xew wooy bi kon ñëpp ci gis seen bopp parce que dëkk la bu xamante ni euh, mooy loolu en tout cas c'est un très beau titre Carlou euh, génne ko euh, peut-être muy annoncé album mais dina bokk itam ci suñu hit parade waaw il annonce la couleur musique fi mu toll ni moo kawe xale yaa ngi def ñoom ñëpp te Carlou mhm. nag da ci yàgg ba oui bu waxee loolu dafa yàgg wax ni man bu ma kenn dugal ci benn genre musical mhm. man musique lay def mhm. musique yëpp lay def bu ñu ne rappeur la parce que déjà bi mu commencé woon rappeur la commencé <laughs> dugg ci yeneen musique yi ñu koy clash mu ne moom musique lay def donc musique voilà wax na ko ci ci ci woy bi mhm. mooy liñ la wax rek pare na moom itam ñu boole ko ci li nga xam ne moom moo di suñu topp bi ndax itam euh, musique bi am na solo te Carlou tout le temps dafa am wax bu mu waxoon Pape mhm. mu des sa xel des ci sama xel mhm. seen régal dama ko woo dafa toog ma ne ko woy bii ban moment nga ko bind parce que woy boo xam ne dafay marqué parole yi dafa am solo mais buy marqué nit ki day fekk nga mer ba ëpp wala nga kontaan ba ëpp wala nga nekk ci dimension yoo xam ne seen régal boo dégloo kàddu yi naan fii mooy seen régal Njaay dañ lay suukaree xel xoromee la bët digéré la waxu kese wax boo dégloo ay waxam te fii tam c'est vrai que moom ay waxam dama koy laaj ban ban dimension lay bindee ay woyam dafa kawe. Ah, ah, Carlou ah. Seri seen dara du euh, seen dara du lore wala dara du lore. da ngeen di sóob seen dara du lore. Euh, woy la boo xamante ni le message est fort mais parallèlement boo ko dégloo mën nga ko fecc. Uh-huh. et ko feccee itam day tax nga def ci réflexion. woy bi mm. tamit euh, dina bokk ci suñu top 5. jëm ci tube de l'été ak Carlou di mm-hmm. y a d'autres nouveautés yoo xamante ni peut-être bu ñu amee temps dinañ ci ñëwaat en mm-hmm. attendant semaine prochaine ci beneen numéro bu fashion musique. Afrique invité yi nag la ñuy woo ñu ñëw rejoindre ñu kenn ka kenn par kenn ci plateau bi Aïda Samb mu ngi fii euh, Pagay Mbaye mu ngi fii euh, Momo Dieng tamit euh, mu ngi fii ñoom ñëpp mën nañu ñëw fekk si ñu bu ko defee ñu àndandoo ak ñoom ku ci nekk ak sa tube bi nga xamee ni def nga ko mais en même temps mhm. daañu découvrir ay modèles parce que mode dafa ànd mhm. ak musique keps mode dafa ànd ak musique ah moom laa ko waxee ñaar yi benn bu nekk mun a dem bàyyi moroomam parce que c'est lié donc dina am ay couturiers yoo xam ne marocain tey ñu ñëw andi seen modèle et je rappelle que euh, modèle yi dañ koy maye ah dañ koy maye dañ leen di jox numéro yi ngeen di woote su ngeen woote au bas de votre écran ñu mun leen a jox euh, modèle yi euh, tey jii nag Ibra Fall bu Mondial Couture Mondial Couture Ibra Fall Mondia Couture ku ko xamul it dégg nga ko ci mën a coupe mën a dagg euh, géejawaay également marché slam en face la nekk euh, mu nekk nag mairie Sam Notaire moom mi nga xam ne moom moo di Ibra Fall bu Mondial Couture numéro téléphone am nekk 77 942 37 61 moom dina indi modèle am Tafa Fall également Tafa Fall ndaanaan xale bu mun a dagg bi Tafa Baara Couture ak itam euh, styliste bi di jëm jim création nekk ci Wakam léegi nag euh, ñoom ñëpp dinañ ñëw tey jii Pape Cheikh fas yéene wane mm. seen ay modèle ñu joxe seeni i numéro ndax nag li ñu def dafa am solo mais léegi léegi nii ndaanaan moom mooy dugg si ki nga xam ne nag moo donn maamam ki nga xam ne dafa jàng musique mbappat ko mën li muy def di artiste boo xamante ne kenn dootu ko présenté ci mim réew daal di ñëw nag euh, dugg ci traditionnel bu baax waaye mënee lool ci modern bi. voilà elle a beaucoup de talent donc ouais. trois créateurs ñoo ñuy fekk si bu ca ak mhm. seen ay euh, modèles. Mhm. Euh, on va faire appel aux artistes Aïda Samb ñëwal mhm. Momo Dieng ñëwal Pagay ñëwal ñoom tamit actuellement ñu ngi def ay musique yu fashion dinañ ci waxtaan ak ñoom seen ay tube seen ay vidéo tube de l'été tout ça ay fashion rek <laughs> Aïda fashion <laughs> Aïda Aïda fashion Pagay <laughs> Aïda. maaleykum salaam ak itam Momo Dieng. <laughs> mais namm la ak jàmm naka affaire yi. Momo namm naa la ça va léegi langue gi langue gi ñu photo ko wala ñu bañ ko photo riis na de riis war nañ ko mën a vidéo nañ ko war nañ ko mën a photo ndax dafa war a des ñu filmé ko wala ñu ñu bañ ko wala ñu bañ ko filmé dafa war a des ci anal gi ndax langue bi riis voilà kon nañ ko filmé langue gi moom <laughs> euh, moo nee na ku ci amati sa langue na nga ko filmé boo ko filmé wul euh, doo mën a denc doo mën a denc doo mën a denc euh, denc souvenir bi mm. donc ñett ñaa ngi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga génne fashion musique mm. musique bu fashion ay artistes yu fashion Aïda Samb ñu ngi lay nuyu merci d'être la gëj ñoo gisee de <laughs> parce que da ngay jékki-jékki rek. <laughs> sama si ren. <laughs> xew bi fekk ma fi de. yow nga bàyyi ba ma xew nga dem. xam loolu du yoon. xamoo xamoo daw. ñu ngi lay nuyu Aïda Samb. Oh, maa lay fay Pape Cheikh kontaan nañu ci ni nga ñëwee ci euh, fashion bi. man maa gën kontaan euh, salaamaaleykum téléspectateurs ñuy seetaan sur la mhm. maa ngi nuyu Kebs bu baax sama sister mm. euh, di nuyu. Pape Cheikh di leen nuyu. lay fay bu baax di nuyu Pakaay Mbay euh, ak moom moo Dieng. lay fay bu baax euh, di bàyyi tamit euh, Pagaay mu nuyoo moom itam yëngal na réew mi fi mu nekk nii. Ah. moom nijaayam ñoo bokk benn affaire. <laughs> ah moom <laughs> naa doon tube. loolu kay teb la sax teb bu rëy teb la ak tube. <laughs> ay ca Pagaay. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu Pape Cheikh. Mhm. di la nuyu Kebs yow. Mhm. di nuyu Momo di nuyu Aïda suma jigéen. Mhm. Euh, di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi. Mm-hmm. donc di wax ne tay ñëw nañ ci plateau bi nga xam ne macha allah. Mm-hmm. donc di nuyu ñëpp. donc donc donc yaa ngi seen nijaay yéen a bokk affaire. ah sama nijaay dafa am toq dof. ah seen nijaay wérul. wérul am sama affaire ñëw di ko wax mu naa ma bàyyi ko. te li ma koy bàyyi loolu yëpp moo ma ko gën a bëgg. da ko waroon wax comme li xale di wax kon wéroo. kon wéroo kooku kay. kon wéroo kooku lu ne yàq naa ko. ko kon. man bëgg naa sax e naa maa rey wax naa ko loolu ah, quand même waaw waaw et dañ ko def challenge léegi nii bon on va en parler bu ca kanam dañu bàyyi Momo Dieng mu nuyoo moom tamit comme comme langue gi i faut gars yi filmer ko ñu ngi lay nuyu ah. Momo maa ngi lay fay bu baax euh, di nuyu mm. Keps bu baax ñu ngi bu baax di nuyu Aïda ak sama frère Pagaye di nuyu Sénégal ak àdduna yëpp euh, ñi ñuy suivre Euh, ci télé bu mag bi muy TFM di kontaan lool vraiment dajawaat ak yéen fii ci euh, fashion music voilà parce que yéen ñëpp da di def yu fashion voilà yi ngeen di def yu fashion yi yooyu la ñu bëgg a waxtaanee affaire bi fan lay jógee inspiration bi man des damay xëy rek mhm. dégg benn wax très inspiré. ñu woy ko taasu ko. Mhm. clip ko ñëpp di ko waxtaanee mu nekk loo xamante ni c'est-à-dire euh, boo toogee sa kër tuuti rek boo génnee train bi daf la fi bàyyi. Ah, et tu es ah, obligé nga bokk ci nga bokk ci mouvance bi. mooy bouillonnement la dafa dooy doy waar quoi dafa bouillonnement la boo xamante ne ci jeunes yi lay jóge créativité bi nekk ci ñoom. tellement moo lay yéem tellement très inspiré. dañuy génne loo xamante ne boo ko dégloo nanga naan yees. Euh, donc moom mi bokk na ci ak jeunes yu bëri ah moo tax ma ne la jeunes yi mooy ñi nekk ci banlieue bi ñi nekk mhm. ci dëkk bi nekk Sénégal fi mu mhm. toll nii mhm. xale yi dañuy dañuy créer dañuy xalaat te xalaat yu kawe yu xóot yoo xamante ne mooy li ma la waxoon rek simplifier ay mots yu ndaw ay termes yoo xam ne dafay dem bañ koy def ay challenge comme ni nga waxee jamono bu mooy fashion jamono bu nekk ak la cee xew te loolu xew ci jamono boobu mooy li tendance mooy li fashion ñoom ñu nekk actuellement ñi nga xamee ni euh, ñoom ñooy def euh, fashion musique jigéen nag ay décembre nekk xale waaye am mhm. jom am talent mhm. euh, sànq yaa ngi wax euh, ni euh, foo ko dugal mhm. mu dem fa bu dee traditionnel bi am na ko mën na ko bu dee moderne bi mën na ko am na ko barki Dembo Dembo Ndiaye on s'est rendu compte que Aïda Samb bête de scène la c'est vrai que boobu ba jotuñu am temps pour defaat bilan wu anniversaire bi waxtaan surtout ci sénégalais yi ni kenn ku ci nekk demee woon ak xol ci sa spectacle boobu nga xamee ni wane nga ni yow itam fashion artiste nga waaw euh, mooy euh, li nga wax rek Pape léegi nii euh, anniversaire bi dafa nekkoon na loo xamante ni man sax wax dëgg yàlla comme niñ koy waxee peut-être amoon naa amoon naa gis-gis bi ne que ne dafay nekk lu lu lu réussir mais. réussite bi mu am wax dëgg fa yàlla am man wax dëgg fa am sax daf ma daf ma dépassé daf la jëlee kaw en fait daf ma mhm. dépassé parce que nit yëpp dañu yaakaaroon parce que comme je suis trop timide mhm. dañu yaakaaroon ne damay ñëw ci scène bi kii mais bon mais xanaa daaw ñu daaw ñu gis spectacle. ñu ñu am chance keroog timidité bi daf fekk euh, fekk la Bercy fekk la Zénith fekk la yënguleen fekk la fooy tëggee say soirée nga korité nga tabaski mais boo xasee ba yëg si scène bi yore micro bi musique fashion beneen ay musique fashion rek <laughs> nga xool ci kaw fees xool ci suuf fees euh, donc comme avant. 17h mu nekkoon une première. 17h avant spectacle bi. Mhm. Amina def na ma. Mhm. li ñu waroon def te la buy toog di wax du def mais sur scène rek la yëngu <laughs> micro bi yëkkati ko te nga arrêté nga bàyyi ñu ñuy <laughs> avant 17h euh, 17 bi ñuy waaj a def euh, spectacle bi. Mhm. Amina def na ma léegi nag yow yaa si des. waaw ñun li ñu waroon yëpp def nañ boobu lan nga yëg Ayda. bon avant spectacle bi c'est stressant de lan nga dafa métti woon. Mhm. c'est parce que dama dugg grand théâtre rek. avant balance parce que dañu waroon def balance à 18h donc ma mhm. di ay 17h 16h laa dugg grand théâtre bi ma duggee dama ñëw toog bi ma ñëwee toog hmm, sama xel ak sama xol sori. Mhm. donc j'ai pleuré. dama toog ci Amina dama toog ci wetu Amina. ma jooy parce que jooy boobu noonu il fallait que ma def ko. bu ma ko defee woon. xam naa sama bopp bu ma yeggee ci kaw seen mais sa tëll rek ni nga dugg see keroog na mu cuub coo too too too too too too too too too too too too too too xoolal lii rek xoolal boobu saal bi yëpp jóg taxaw na je te jure ñëpp taxaw accueillir ko c'est-à-dire jolof ñëw loo nekk xale nekk xale nekk xale nekk xale boo am na am na ay moment yoo xamante ni boo ci taxawee moomoo yow lii ay décembre dund keroog dund nga ko grand théâtre waaw comme ni mu ko waxee rek xam nga Aida moom daanaan la. Mhm. macha allah spectacle bi euh, daf ko matal ba mu mat sëkk. Mhm. ba pare xam nga di nga ñëw sax euh, bo ñëw ba am bés ñëw ba ci bés ba. Mhm. xam nga def spectacle rek te doo way. mais jour boobu macha allah ñaar yëpp la boole. dafa way def spectacle. parce que sama papa doon na ma wax loolu bi may préparé suma euh, grand théâtre bi mu ne ma moomoo bu fi nekk di. def yoo xamante ne di di chercher loin wala ngay nekk di bëgg a def lu ex non non mm-hmm. Mm-hmm. ni ngay noonu li neex sa public bi ni ngay ni ngay ni ngay jouer ñoom noonu mu naturel mm-hmm. ñëw rek nga def loolu defal leen ko te Aïda jour boobu macha allah loolu la def est-ce que est-ce que est-ce que metti woon na metti woon na diggante avant pendant waaw avant moom c'était tellement <laughs> compliqué metti woon na trop Euh, spectacle dafa métti. Mhm. spectacle dafa diis surtout euh, première fois. grand mhm. théâtre parce que bi ma demee ñuy tourné spot bi grand théâtre bi nit ñi gisee spot bi rek nit ñi dañoo tiit ne ma mais yow gis nga yow li nga soob li nga soobu grand théâtre xam nga dafa xóot. Mhm. Ah. mais man aw ma woon problème mu que grand théâtre dina fees. man aw ma woon problème moom man problème bi benn problème laa amoon. mooy que man Aïda Samb li ma nit yi di xaaree sur scène. est-ce que waaw mhm. man problème boobu laa amoon. Mhm. wax naa ko ci bi ñuy def science euh, bi ñuy def euh, ak journaliste di waxtaan. Mhm. ma ne leen bu doon cinq personnes sax. dinaa taxaw man spectacle bi may présenter c'est ça qui loolu moo importance man sinon le reste grawul même bu dee cinq personnes dañ ñoo toog ay desaan waye leen di nekk ci xolam. def spectacle bi mu mébét. loolu moo gënoon nekk ci sama. te foog naa tey ce sera l'occasion képp koo xam ne teewoon nga fa parce que nit ñi dañ la témoigner seen amour mm-hmm. témoigner la seen affection mm-hmm. mu déplacé wu ba pare non seulement ñëwuñu rek toog dafa nekkoon public bu neexam bu neex mm-hmm. public boo xam ne day participer en fait di yuuxu di tàccu di dund ak yow li nga xam ne moom moo di seen bi tey jii foog naa ce sera l'occasion nga wax leen merci boo xamante ne euh, waaw seen fay waaw bu mm, fashion waaw lépp fashion pap euh, sama diggante ak samay mbokk Mhm. sama diggante ak samay askan mhm. sama diggante ak euh, sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg Aïda Samb mhm. aw ma seen fay parce que ku gis keroog Grand Théâtre bii xam ne nit yi bëgg nañ Aïda Samb ci seen xol euh, ba pare gis nga bi spectacle bi passé dafa fekkoon yuusu voyager euh, voyager nekk fi woon mais spectacle bi ci fajar message bi ma envoyé dafa daw sa yaram. non daw bi dafa daw sama yaram benn deuxièmement. mooy que ne baa yorew sa téléphone. <laughs> boo demee noonu la dem <laughs> non parce que. Euh, peut-être message bu bu gudd message bu gudd. encouragé ma. Euh, kontaan ci sama performance. parce que lii performance la ci loolu performance kontaan ci sama performance. ba pare yokk si ni ma. Euh, dinaa la dinaa euh, organiser wu de telle sorte que ñu toog tegaat concert bi ma wax si sama xalaat. Mhm. ce qu'il faut lan lañu war a lan nga war a changer ak prochaine fois lan nga war a yokk. donc loolu dafa. bokk na ci lu ma gën a neex si si si si. y' yu pas yu y' a pas am na ñeneen ñoo xamante ni. Mm-hmm. dañ la teel a gëm. Mm-hmm. bi la kenn gëmul. benn ci yow ñu jàpp ci mm-hmm. àndandoo ci ak yow ba ci spectacle bi am na ci ñoo xamante ni xooluñu woon sax li ngay woy mais réussite bi moo nekkoon loo xam ni dafa seddoon seen am na ci ñoo xamante ne nii bi ma ne tëll sur scène bi ma sa bi ma bi ma duggee ci scène bi rek seen rongoñ dafa dañoo jooy parce que ñooñu ñoom ñoo gëm Aïda Samb avant dara di xew ku ci mel ne sama tonton Amari Gise mhm. bi ma bi ma bi ma woyee koko bi biraaxi yo anta saraxa kumba waalib ma kumba waali see eh eh eh kumba waali see ayaama xaaxo parce que way boobu nit ñi xamuñ euh, la plupart nit yi xamuñu ko way way bi xamuñu ko mu nekkoon way bu Ousseyn Ndiaye woyoon mhm. Ousseyn Ndiaye moo ko woyoon gaaw Amari jël ko ne if moom la ñuy def ouverture euh, spectacle bi mhm. donc moom bokk na ci njëkk a jooy mhm. dafa dafa jooy grand mu nekkoon ay moment yoo xamante ni des moments inoubliables ci sama ci sama carrière dugg ci saal bi gis samay mbokk gis samay xarit gis samay am di jàmm gis ñëpp ñu nga xamante ni wax dëgg yàlla dañ ma soutenir mhm. ba nga xamante nii man dama ne est-ce que lii sax man man lii man maa ko ci mhm. euh, ba waa kër sukkay yi taxaw <laughs> moom da doon jooy euh, tonton Baba maal bi passé daf xam nga fan laa ko fekk doomu sukkay bi da doon jooy moom moom moom dama koy bàyyi ak damaa dugg rek moom fi après dinaa ko dugal ci internet xaccet jar na dugal kay parce que dafa lakkal nit yi waaw <laughs> bi bi ma dugg rek mu commencé di remercier tonton Baba Man parce que mhm. bi ma demee Podor tout récemment mhm. dama dem seetaan seeti ko mhm. bi ma demee mu kontaan moom aussi Mm-hmm. moom sama nijaay la parce que moom sama yaay ñoo jàngandoo euh, lycée Ahmed mm-hmm. Fall. Mm-hmm. ba pare boole si ne ma incha allah ren blues du fleuve blues du fleuve. da ngay ñëw incha allah si Podor. voilà yaa ngi jëm uh-huh. nag ci yeneen mais balaay loolu. Euh, dañu koy bàyyi mu woyal ñu nag. waaw mu woyal ah, il faut nga woyal ñu nag musique bu fashion. te lu suwaat ci plateau bi ñu waxtaan Momo Dieng Pagay ak yéen ñi nga xamante ni yéen a àndandoo ak ñun euh, on va découvrir quelques modèles bu ca yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw pour wan ñu ay modèle yu fashion mais mhm. Aïda Samb moo ñuy woye woye léegi nii euh, woy bu euh, fashion bu ko defee ñu bëggee ba pare dafa sol lu fashion aussi te tamit ci spectacle bi nga xam ne moo amoon grand théâtre ah, tamit dafa dugg see cuub pap ah, dugg see ah, cuub boo xamante ne euh, ba tey dafa des ci xel yi ba paxe tout au long tamit mooy li ma la waxoon. Mhm. fashion la ñuy def rek lépp fashion keroog. waaw maa nga woon ci digg nag yore <laughs> micro. si nga waaw naan leen baa xol yi feex na oh, ah bu ñu ne woon ngàcc bu ca ñooy bokk yéen yéen yéen dellu dellu ay <laughs> Aïcha Aïda Samb la ñuy déglu mu euh, woyal ñu ci euh, musique fashion en direct euh, ci télévision Futur Média Aïcha di def ñaaw dëgg la na nga dawal yurma bravo mais mais mais way bi neex na de non woy bi bi dafa dafa dafa riche comme comme comme li may wax sànq. woy boo xamante ni euh, paroles yi dafay wax. dafay wax c'est c'est c'est dafa dafa c'est touchant en fait boo ko dégloo rek dangay ngay comprendre lu bari ci mm. euh, ci ci euh, ci message bi. waaw morceau bi moom je pense que ba Pape Cheikh. Mm-hmm. woy bi sénégalais yi ñoom ñoo ko jëlal seen bopp. Mm-hmm. parce que bi mu génnee rek. album bi mu génnee je pense que la ñuy adopté morceau bi mhm. bëgg morceau bi mhm. ba pare li ci gën a am importance mooy que ni dañu gis seen bopp si si si morceau mhm. ci ci parole yi parce que parole yi dafa dugg ci kër gu nekk ci kër bu nekk la dugg ci bureau yi ci kër yi fépp daal la dugg donc mu nekk waaye bu nga xamante nii ñëpp la laal loolu moo tax sénégalais yi euh, boo duggee sur YouTube. al hmm. bi mu ngi génne yaa y' a même pas deux mois. Hmm. mu ngi ci plus de un million cinq cent de vues. waaw tellement de vues. partagé waaw un cent de vues. donc tey jii. j'ai eu la chance tey nit yi di ma suivre YouTube. Hmm. parce que bi ma génnee lan la ci huit mois la toll. dugg na ci cinq millions de vues. waaw donc tey donc tey mais sama devoir la ma remercier Sénégalais yi parce que. ñu ngi may suivre. Mhm. ñu ngi gën doon nañ ma suivre. Mhm. mais dafa yokk ak grand théâtre bi mhm. sénégalais yi dañu découvrir at beneen Aïda Samb donc grand théâtre bi euh, Aïda Samb wax dëgg yàlla sénégalais yi gën nañ koo bàyyi bàyyi xel. et puis ce qui est intéressant ñoom seen musique dafa tombé ak. Euh, euh, euh, génération voilà nouvelle technologie yi gën a avancé muy YouTube muy WhatsApp muy Snapchat c'est-à-dire mm-hmm. xaaratuñu sax télé. wala xaar rajo ñoom dinañu defal seen bopp seen promo la preuve pagay carton bi nga xamante ni mu ngi koy def. Mm-hmm. tey jii internet joué na bu am solo. muy challenge yi nga xamante ni ñëpp a ngi koy def. Mm-hmm. muy nit ñi ni ñuy découvrir talent yi ni ñuy découvrir. découvrir fecc yu bees yi. Mhm. dañuy découvrir seen ay tubes yu bees. Mhm. Euh, voilà gën na yomb. dëgg la mooy moom lu ma la wax le monde est devenu petit. Mhm. village planétaire la lu ndaw boo ko génnee vidéo li ñu jël léegi def ko Snapchat tegal. mu dem tu facilement ak sa smartphone donc àdduna bi noonu foofu la toll. moo tax yëf yi nee la àdduna bi blasé la rek fi toll nii. dans le domaine de la musique dañuy jël li nga xam ne moom moo di base bi mu am racine yu dëgër muy Euh, foofu la àdduna bi toll comme ni ko pagaay defee mm. affaire am bi nga xam ne moom la séq ak nijaayam ci wax léegi nii comme ça Aïda tu vas rester avec nous ñu waxtaan ci euh, fi nga jëm projet yi mm. yi ak yeneen spectacle yi uh-huh. xamante ni yaa ngi koy préparé mm. sénégalais yi mais pagaay tamit moom dafa dafa nekk phénomène actuellement dafa nekk phénomène xam naa ne au départ bi mu koy def sax kenn ku nekk looy def di nga ci séentu am succès mm-hmm. mais fii mu egg nii xalaatul woon peut-être mu egg foofu parce que euh, génn na tubam boo xamante ne nii teg na ko rek mm. réew mi yëpp daal di yëngu ni ko reprendre def ay termes yu simple mm. mais nekk na loo xamante ne tam lépp loo ci gis mu gën a dox rek ay fait de société la mm. yu am ci kër yi am fépp li ñuy wax nii di ko woy di ko génne dañ koy dafa dañ koy gis ci société bi fi ñu nekk muy Sénégal bagaay ay wax loo uh-huh. ciy wax waaw euh, morceau bi mm-hmm. wax dëgg yàlla jàppoon naa ne mën na yegg si fii mm-hmm. Mhm. yàlla xor lay fay fay dëgg la ñun dañuy ay xale yoo xam ne mhm. suñu doole dafa néew lool mhm. ndax amuñu lu nekk suñu ginnaaw di ñu buux man bi ma dalee nekk ci musique ba tey damay dem ak samay moyenu bopp damay tëgg sama programme la ma fa am boole ko dajale ko mu bari ma dem studio enregistré morceau bi bi ma koy enregistré ndax togoon naa ay jamono ci ginnaaw kenn déggatuma kenn gisatuma enregistré wu ma woon mais boobu damaa jékki-jékki rek daa di toog ne xaaral ma liggéey leneen te bi ma koy def euh, wax dëgg yàlla métti woon na trop mm-hmm. dem naa sax ba jël samay matériel lu bopp di ko jaay. ko jaay ah, ah. waaw ndax studio ku nekk xam na ni mu demee ni demee. studio. Mm-hmm. boo fa indee ay artistes yoo xam ne ñoo lay jël. Mm-hmm. des fois nag am na ci ñoo xam ne say xarit lañ da ngay yàgg nekk ak ñoom donc dañuy ñëw ba studio. mais duñ ne fay ma mais yaay xam ne kii. dafa def ñaqam li war sa diggante ak moom nga def ko mhm. donc xam nga mu doonoon morceau boo xam ne wax dëgg yàlla mhm. liggéey naa ci liggéey bu metti bu am solo waaw bu am solo kon ñu rectifier boog parce que bu ma waxee ne xalaatuñu woon ne mu egg foofu mhm. peut-être ne yow nit ku nekk rek booy def dara da ngay am ambition mu sori foofu mais ampleur bi mu jël day weesu sa njortu day weesu sa njortu loolu laa bëgg wax waaw waaw maanaam uh-huh. loolu loolu lépp parce que talent u cartonné moom am nga ko déjà mm. déjà parce que yàgg nga def ñëpp xam nañ la dëgg la waaw ku munul dëgg wala amoo talent doo def li nga def dëgg la loolu loolu dama koy delloowaat rek ñi nga xam ne uh-huh. ñooy doomu aadama yi <laughs> ndax tey jii nii maanaam nga def benn affaire uh-huh. ñoom ñu gën lu ko bëgg dama koy delloowaat doomu aadama yi mhm. ndax euh, wax dëgg yàlla tamit xam nga ñoom li may faral di wax rek ñoom ñooy suñuy patron mhm. waaw ñun ci liñ nekk ñoom ñooy suñuy patron waaw ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy apprécier li xam ne moom moo di musique bi yow ci tëgg nga doon def non tëgg sabar waa tëgg laa doon def mhm. tëgg laa doon def ndax dama bokk ci ñaari famille donc famille boo xam ne famille jëre jëre la bu Kaolack waaw bu Kaolack bokk ci famille euh, waa Kër Dogo sama papa Jimi Mbaye ku nekk xam nga ko dégg nga gis nga li muy def donc ma commencé ci di tëgg mm-hmm. àdduna di dox ñu commencé ci programme yi di ma engagé may tëgg di dem mhm. mais boo mhm. demee ci programme yi tamit da ngay créer ay affaire mhm. donc di ko dóor mais boo ko tëggee da ngay gis xale yi xam nga niñ koy consommer waaw di ko fooyewaat te man bu may def benn affaire dama koy natt ci ah, xale yi da nga dem ba même boo bu dee bu dee loo génnewul la sax da ngay gis ni ko nit ñi di reprendre waate ci dëkk bi Pape Cheikh laay wax ci sama benn morceau ndax morceau bi dafa am beneen morceau bu ko gunge ci ginnaawam am na beneen morceau bu affaire yi ni muy xewee léegi man daf ma jaaxal daf ma jaaxal waaye nga ndax programme yi lu bari ci lay xew. affaire dafa gaaw. dafa gaaw quoi. programme xef xippi dégg lu bees xef xippi dégg lu xew. waaw gis nga àdduna moo toll foofu. nga programme dem ñibbi. waaw di dégg ko dégg ko ci dëkk bi dégg ko feneen bari na. xam nga ñu def ko live quoi di ko teg waaw gis nga mhm. loolu xam nga mbiru suñu borom la daal ñu ngi ci xam nga di liggéey rek mhm. donc ñu ngi ci yoon ay ndaw dañ lay bàyyi nga may ñu ci aca ba mu neex aca jeex na jeex na comme musique bu fashion waaw <laughs> may ñu ko ci fashion musique jeex na ma wax ak sama nijaay léegi mhm. ay ca waxal ak sa nijaay aca yam foofu maa bañ bul dem bul dem bul dem bul dem kaay fii kaay kaay leen fii kaay leen fii fii la lamp yi gën a leer sax ñëw leen fii moo gën a fashion la la la neex na sama nijaay xaw ma lan la waa léegi si bi pour lan la si bi si bi si bi pour lan la non may mayaat ma ci mayaat ma ci léegi si bi pour lan la ci namaraay bi comme ça kii mu yor amul bi foofoo neex ba ci fin bi foofoo neex waaw nama rey bi <laughs> pa ngay toogal il faut il ma présenter leen tuba yéen ji waa lii tuba fan la abal ko micro bi mu expliquer moom ah. bu ca kanamee défilé day am waaw léegi nañu commencé défilé bi ak modèle bi na ko lii moo xam la mode tabaski sax waaye lii mooy mode mode fashion musique si bi de moo ma ci jaaxal si bi <laughs> waaw <laughs> mun naa la téyereel téye uh-huh. bàyyi ba téyeel la rek. waaw ñu leen lay nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. ñu ngi lay fay boo gisee xeetu tuba yi pour bëggal askan wi rek la. ah li mooy tuba yi bëggal askan yéen ni ngeen di bëggalee askan yi ñëpp teg nañ seen bët. dëgg la mais ñun foog ñu jàppale leen ci loolu. ak plastique yi xanaa dafa xew. tic tic moo ma ko jox. moo la jox lii moo ma jox yii. ne la sañseel nga dem. <laughs> décoré ma ko. tooñ na la tic daf la tooñ nii nii daf la tooñ nii gaañ na ko voilà daf la tooñ nii nii nii nii nii nii. kon rey na ma nii. daf la rey nii non je vais tuer moi. grave oui. non mais tu es grave toi ah. il m'a tué. musóor bi nag. kii Aïdara moom ma ko joxoon Aïdara laa tooñ nii. moom ma ko joxoon Aïdara tooñ na la nii. néew leenu daal néew néew leen. Aïdara tooñ la nii. eh pourtant dafa assorti ak yére Aïdara de pourtant. wax na dëgg de boo demee Aïdara ko ko jox na ko kase. dafa dégg. Aida daa dégg moo ma jox xamee nga li da ngaa kase de dafa kase ak sa xamee nga li ko joxoon yëngu leen <laughs> combinaison bi nag. merci kontaan nañu va t'asseoir là-bas. et puis ah, et euh, challenge bi gis naa gars yi di ko def mais bu kenn utiliser nag ay jaasi quand ah. jaasi la wala lii la si. lii si la waaw bu bu wóorul bu ko kenn ah, utiliser moom rek moo ko mën a utiliser mais bu ko kenn feccee bu ko kenn filmer boppam di ko dugal ay WhatsApp comme dafa xew ak YouTube. Mm-hmm. voilà donc yi xew la ñuy waxtaane moo xam musique moo xam sañse moo xam façon de parler loolu moo tax ñu créer euh, fashion musique pour que ñun ñaar tamit ñu àndandoo ak sénégalais ci mouvance bi mm-hmm. animateurs yu retraité lañu <laughs> jamono bu ne ak la cay xew ñu ànd ci noonu moo tax comme yii xew. il faut ñu ànd ci ak sénégalais yi. ñi xew nag ay décembre daf cee bokk Pagaye daf cee bokk Momo Dieng daf cee bokk. alors Pagaye ñëw won ñu euh, single bi nga xamante ni actuellement mu ngi def carton ba sénégalais yi di ci def euh, challenge. am na yeneen titres yoo xamante ni yéen yéenay voté. Mhm. Kebs moo ñuy expliqué léegi nii hit parade bi nga xam à partir de semaine prochaine. Mhm. Euh, dañ leen koy jagleel ñu tuddee ko top ci tube de l'été Kebs tube de l'été comme ni nga ko waxee à partir de semaine prochaine yi nga xam ne moom moo xew commencé nañ sànq ak <laughs> Viviane ni ngeen <laughs> fi gis <laughs> mais choix bi nag dina difficile ci les spectateurs damay ñibbi doo mën a dem moom muy top 5 boo xamante ne dañ ko initier euh, pour que téléspectateur bi toog di seetaan yéen yéenee tànn ah. les cinq tubes du moment tubes yi nga xam ne ñoom ñoo fashion muy it parade boo xamante ne di ngeen am possibilité bi woote ci numéro yi mën a tànn ne moo xam tube bii la wala bii la loolu yëpp yéen a koy décider mhm. ba pare mais en même temps également Pape euh, am parce que itam am ay tailleur yoo xam ne seen créativité foo ko natt rek romb na ko ci Sénégal mhm. ñu fas yéene ñëw andi défilé boo xamante ne euh, dañ koy boole ci da ngay toog nag tuuti ba ci kanam moomoo nga toog tuuti ba ci kanam Aïda Sam nga toog tuuti ci kanam ñu découvrir ay modèles yoo xamee ni bëgg nañ leen ko présenter uh-huh. euh, tey ci euh, fashion musique bi on va démarrer ak défilé bi léegi ni ngeen découvrir yu baax yi nga xamante ni euh, dañ leen koy jagleel tey ci euh, fashion euh, musique mm-hmm. alors premier modèle mën na yegg si ay modèle yoo mm-hmm. xamante ni mu ngi jóge ci créateurs yi nga xamante ni invité nañu leen tey mm-hmm. pour ñu ñëw àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média on découvre c'est parti ah aywa ñu dem ci défilé bi kii di défilé nag moom cocotte lay nuróol de cocotte Ndiaye moom man mannequin la boo xamante ne miin nañ ko voilà Euh, mu andi modèle boo xamante ne bii bu am solo la. na papier voilà donc dañuy démarrer ak euh, Ibra Fall Ibra Fall waaw. mondial couture ah. voilà Ibra Fall couture. ah Jim création bi Jim création la. Jim création wakaam la. cité ASEC euh, cité lan la cité ASEC naa la téléphone am abal ma paa. téléphone voilà ñu joxe numéro on découvre d'abord mu nekk bustier waaw waaw waaw Ahmed bàyyi ko mu dox bàyyi ko mu dox bu ko indi ci yow arrêté jongo <laughs> mana couleur bi mu nga la fàtte donc da taxaw comme ça ñu découvrir détail yu détail yu modèle bi. Mm-hmm. ñu découvrir tuuti détail yu modèle bi Jim euh, Création moo ko euh, defar. waaw. voilà rester là-bas. nga mën mën nga taxaw foofu. voilà du détail. léegi bu ko defee dañ koy enchère wala dañ koy maye ay décembre ñu def ko vente aux enchères jaay ko wala ñu maye ko léegi nii. Euh, maye ko ah. man de bëgg naa sax. <laughs> yow li ko sol yëpp ci sa anniversaire bi doyoo doyoo téléspectateur non mais xam nga lu tax di ko jaay ca Seyda ba. parce que parce que parce ah. que xam nga lu tax ma ne bëgg naa parce ah. que jim bi ñëw lii. Uh-huh. Euh, sama nit la. Mm-hmm. presque. Euh, la plupart yére yu may sol. daf ma koy ñawal ah, ma koy defaral très bien nga. <laughs> Euh, boole si grand théâtre bi yére yi musiciens yi sol yëpp moom moo ko ñaw. Mhm. Ah, kon yëpp yëpp moo ko defar moo ko ñaw yëpp. ko ñaw yëpp moom moo ko ñaw. Mhm. Mhm. c'est pas la première fois. kii daf may solal je pense que ne même tey woon na ma mais dama demoon Popenguine loolu moo tax jotuma. ok ok te su ma xamoon ne da ngay <laughs> sol yërëm ngay <laughs> sol donc ñu découvrir en même temps en même temps modèle bi. Euh, mhm. Kebs nga jox ñu adresse numéro de téléphone Jim Création moom ñëpp xam nañ ko. Mhm. gis nañ ko mode Korité gis ko mhm. mode Tabaski donc tey ci fashion musique bi euh, mu indil ñu modèle bi euh, dañ leen koy may ah téléspectateur bu dugg léegi nii bu tombeek taxawaay bi nii mën nañ ko may yére bi mu tabaskee ko donc nan la nit ñi mën a def. pour am modèle euh, jean création bi. Pape Cheikh noonu la ku woote ci numéro yi 688 628 22 22 wala 88 628 65 65 mën a am ci numéro bi wala 88 boog 628 04 05 modèle bu am maanaa la. Euh, ndax li nga gis ni Gesner la. ah euh, bazin la euh, mu jël ko nag travailler. xanaa da koo gros fit waaw da koo <laughs> mu def ci euh. couleur yi mu def moom moo osé. Mhm. parce que booy xool dafa nekk couleur yu bu la. bleu ko dafa clair bi mante la. Mhm. ba noppi itam mu jël nag loxo bi travailler ko broderie bi loxo bi ah. fa la lépp reposé loxo bee gën a ah, rafet. baa ngi ci loxo bi dañ ko broderie. Ah. tu vois dañ ko broderie ak couleur bu grise xam nga da yaakaar ni da nga naan lii. du ànd ba pare sànni ci tamit euh, ay paillettes ba pare boo ko gisee tu as l'impression la alors que c'est une ah. bustier la ni ngay a tàkk ci suuf tamit tàkk. gis nga ba pare ñu broderie ci suuf coupe bi déjà da koy xool da nga xam ne dafa mën coupe bu la wanee ginnaaw da nga naan taille basse la sol ak bustier la taille basse ak jupe alors que devanture bi boo ko xoolee nga xam ne bustier la robe bustier la en fait ñu travaillé ci suuf jëm création daal fi mu fël euh, nooy na torop daal voilà alors ñu jël euh, ñu jël benn téléspectateur parce que ñoo ko diggee modèle bu ngeen gis rek ku njëkk a dugg ñu may ko modèle bi comme ça mu euh, mu tabaskee ko allo allo allo mm-hmm. kookal la salaamaaleykum maaleykum salaam kenn waaw waaw naa def maa ngi fi ku wax loolu Sam Cheikh waaw <laughs> na def ça noo tudd noo tudd ak foo ñuy woowee allo. man Adama laa tudd. Adama xanaa bëggoo modèle bëggoo yëre tabaski. Adama dafa mel ni kuy dégloo ak télé. téléphone Adama da ngay dégloo ak téléphone bi comme ça ñu ñu ñu ñu waxanteeg yow lu gaaw. waaw. man Mariste laa leen di woowee. Mariste. Mariste. alors. allo. kon moo ñëw model bi. ku ñaw lii lii kokot Ndiaye xale bu jongoma bi sol kan moo ko ñaw. voilà je pense que déggatuñ ko euh, mën na mhm. raccrocher peut-être mu rappeler waat composé waat benn ci numéro téléphone yi affiché wu nii ci suufu écran bi 88 628 22 22 ak euh, yeneen euh, numéro yi mhm. très rapidement beneen téléspectateur balaa ñuy jàll ci beneen modèle je rappelle que modèle bi modèle u Jim Création la mu ngi nekk Wakam modèle la bu rafet boo xamee ni ku dugg ñu may la ko allo woote leen léegi nii rek am na ku nekk si allo. allo. allo allo. dafa saturé. <laughs> oui non seulement dafa saturé mais ku woote bul déglu télé bi dangay ngay déglu téléphone bi comme ça woote yi mën a gaaw kookan la waaw kooku. allo allo waa ñu ngi lay dégg soxna si. ça va waaw tur bi nan la. daba. daba fooy wootee. CPI. CPI. Mm-hmm. Euh, daba modèle bi kan moo ko ñaw bii Cocotte Ndiaye sol. modèle bi kan moo ko ñaw. jim jim. <laughs> déggal li jim man jim taw wala jim Ndiaye. jim mooma taw. jiili jiili. jiili création. waaw yow da ngaa trouvé ba pare faussé. coupeel nii nii nii nii. nii nii nii. <laughs> man li ma jaaxal moom nee na jim ba pare. <laughs> tey jii li ñëwul tey jii li <laughs> ñëwul tey jii li ñëwul xëy na mu ñëw samedi prochain mais xoola. Mhm. <laughs> kon lool la. alors Pape ñi ngi leen di xaax euh, ba tey rek woote leen ci numéro yi ngir ñu mun leen a jox euh, ñaw bi woote léegi am ñaw tabaski te lii boo ko tabaskee sa tabaski moom dangay nekk ca kaw. voilà allo allo il faut ngeen gaaw nag pagay dafa am dafa am xew nii dafa war a dem waaw moomoo mm. rek fi nar a toog ak ay de sàmm te ñun ñu ngi bëggoon jëm quatre heures du <laughs> matin <laughs> alors samedi soir u été la ak yeneen numéro téléphone yi affiché wu euh, ci euh, suufu écran bi ñu ngi nuyu suñu xarit yëpp ah, ak fu mhm. ngeen mën ti nekk mhm. euh, fashion musique c'est tout nouveau chaque samedi soir Kebs ak man gunge leen ci télévision Futur Média en attendant yeneen programme u samedi soir bi ci télévision Futur Média alo allo allo allo euh, kooku dem <laughs> voilà euh, donc j'aimerais savoir. Uh-huh. ndax Jim euh, Création benn modèle bii la wala dafa am beneen modèle. benn modèle bii la waaw. voilà donc euh, euh, cocotte mun nga taxaw noonu ñu découvrir nag deuxième model mais d'abord euh, ñu jox leen adresse su Jim Création ak numéro de téléphone pour yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg modèle bi alors Jim Création mi ngi nekk Wakam cité Asecna téléphone am di 77 645 98 47 moom moo ñëw modèle bu am maanaa bi moom Jim Création je répète 645 98 47 modèle lu Euh, bii nga xam ne moom la ko kot sol mu di Jim euh, Création cité ASEC naa la nekk. deuxième modèle ak beneen créateur bu ñu leen bëgg may mën na défiler en même temps ci plateau bi mm-hmm. on découvre tout de suite avec la musique muy modèle u euh, Tafa Fall la. wala Ibra wala Ibra. Tafa la wala Ibra dites-nous très rapidement. Ibra Fall voilà Ibra donc modèle Fall euh, la ñuy bëgg a découvrir léegi nii euh, donc euh, euh, modèle u Fall la ñuy découvrir Ibra Fall mondial couture Guédiawaay marché Sam yow daal nga la fàtte leen da nga dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox ojo ojo bu leen wutal bës bàyyil dem yow daal bu la tardeel doxal sa keps nga commentel ñu ko donc Ibra Fall Mondial Couture nekk waay marché Sam euh, moom moo proposé modèle bi au fur et mesure ngeen di gis modèle yi man ak keps ñu ci wax man ngeen a composé ngeen woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ni euh, mu ngi affiché wu ci suufu écran bi comme ça ñu may leen ko en direct ni euh, mu nekk seen yére tabaski. maye en direct nii ci fashion musique comme ni nga ko waxee Pape Cheikh moom nag brodé la sol xam nga rek gis nga xale bi ni mu jongomaa rek sol brodé brodé bu rouge la. Euh, Pape Cheikh ñu def ko li nga xam ne moom moo di genre marinière la mun naa ne marinière taille basse la en plus taille la ñu defal ko manche yi nga xam ne dafa fashion xew lool euh, te bokkul ak tissu bi ndax dafa mel ne basin getzner la ñu jël def ko li nga xam ne moom moo di rek euh, tissu bàyyi faal ko ndax itam dañu boole yu bari def ko patchwork mhm. couleur yu bari ñu def ko ci taille bi waaw taille basse la ñu def ko ci taille bi def ko ci loxo yi manche yi nekk manche su tendance yu fashion ak itam nag fii nga gis ñu rappelé ko def ko baat bato rek baat bato ba noppi itam def euh, rappelé waat ko ci li nga xam ne moom moo di ay bouton yi ci kanam mais c'est magnifique mu boole kook jupe jupe droite donc brodé dafa dafa fashion ndax tàngaay la ñu nekk euh, air bi dina jaax fu nekk te nit yi jël nañ ko bu baax ni ko solee rafet na baat bi tamit baat bato la day dégager et puis loxo yi nekk loxo yu fashion ah. bu duggee léegi nii ñu may ko ko tey ci musique fashion 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 numéro téléphone yi affiché wu ci écran bi même bu fekkee yéen a bitim réew aussi ah mhm. euh, mën ngeen a parce que yéen yéen commenté par Kebs ak ay créateurs yoo xamante ni euh, ñoom ñoo ñu koy proposé désormais chaque samedi euh, ci télévision Futur Média nañu xool téléspectateur bu nekk ci ci ligne bi Euh, et puis en même temps nga taxaw toujours. ñu uh-huh. découvrir euh, modèle bi di duufal suñu ay bët. Euh, donc modèle yi mu ngi jógee n'est-ce pas mondial mm-hmm. couture. ak Ibra Fall allo. jox ma yat ban koo bëgg a dóor. ñuy dóor. <laughs> tey ñoo daw. allo. waaw noo tudd. allo. allo waaw. noo tudd ak foo ñuy woowee. kookan la képp. waaw. man la Marie. Marie. foo ñuy woowee. waaw. foo ñu woowee. HLM Grand Yoff. HLM Grand Yoff. HLM Grand Yoff. waaw ana waa HLM Grand Yoff. alors Marie euh, modèle bii nga xam ne model bii lañ lay laaj ban euh, créateur ban tailleur moom moo ñaw model bii euh, ñuy défilé actuellement muy brodé bu xonk bi. Ah, brodé bu rouge bravo nee na mondial couture. non Marie am na yére yëre tabaski <laughs> Marie rek Marie noo sant. noo sant. voilà dinañ ko dinañ ko jël ci suuf ñu jàpp ni moom Marie euh, gagné na modèle bi <laughs> nañu woote rek ñoom continuer leen ba tey ah. yëre tabaski yaa ngi fii euh, gis ngeen rek 88 628 22 22 88 628 65 65 Pape Cheikh 88 628 04 05 nga woote am ci modèle yi am loo tabaski. voilà merci <laughs> mun nga dem ñu xoolaat beneen modèle bu ñuy découvrir en même temps ngeen di woote ci euh, numéro téléphone yi affiché wu ci suuf. Euh, dese nañu Jim non Jim création. jàll na dese nañu Tafa Bara euh, Couture euh, Euh, ñu découvrir euh, modèle bi nga xamante ni moom la ñuy proposé euh, ci fashion musique bi en même temps ku wootee modèle bi nga gis dañ la koy may en direct <laughs> ci télévision future média ayca nañu découvrir beneen bi uh-huh. bu fekkee mën na nekk no tamit ñu course en même temps ak temps bi waxtaan ak Pagaye parce que war na dem déjà Pagaye ñu ngi lay gërëm merci mm-hmm. encore bonne chance ci li ci des mm-hmm. lan mooy projet yi waaw euh, projet yi nag mooy maanaam tey ñi ngi ci tànk bëgg a def album. Mhm. Euh, am nañ ko sax mais nag wax dëgg yàlla dañoo nekk ak ay kilifa yoo xam ne. Mhm. dañ ñuy teg ci yoon dañ leen di déglu. bu ñu nee na génn rek mu génn waaye tey taxaw nañ pour képp kuy sunu fans rek. ñu mhm. bégal la. ñi ngi ci tànk yooyu di leen wax ne nag. Euh, chaque lendemain tabaski mhm. yàlla suñu borom dafay dogal may def benn xawaare boo xam ne dama koy may waa pikin yëpp waa Pikine ah, ndax ñun d'abord maa ngi leen di gërëm sax di leen nuyu mhm. ndax ñun fa lañ dëkk mhm. ay doomu banlieue lañ te wax dëgg yàlla fa la ñu dëkk fa la ñu fa la ñu yaroo donc maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit waa Kaolack di wax ne incha allah bu ñu jugee foofu euh, le premier septembre ñi ngi dem fi nga xam ne moom mooy yëngu war fa def nag soirée boo xam ne soirée na ma rey la Pape Cheikh nag boobu bëgg naa nga ñëw ci dama fay jiitu jaasi lay waaw yow affaire bi mu yoroon waaw bëgg naa nga teew yow kepp si incha allah bu ñu jugee foofu nag incha allah mm-hmm. le dañuy dem DCAO mm-hmm. ànd ceeg suma rakk mari le neuf ñu xëy def fa concert bu rëy woo ci fans yëpp incha allah waaw bégal fan si rek moo ñu tax a jóg jeex nañu la wax yàlla na yàlla leeral sa ci li ngay def ndax lii la Sénégal soxla dëgg la bon vent daal lañ lay wax Pagaye incha allah merci beaucoup jërëjëf yéen it suñu borom defal leen jàmm voilà merci merci Pagaye merci Pagaye Fashion nañu <laughs> euh, ñu euh, jël beneen wala ñu dem ci Momo Dieng ah ñu jël beneen beneen modèle wala Momo Dieng Euh, on fait quoi dites Momo voilà, voilà. donc ñu découvrir beneen modèle bi donc modèle bi modèle u euh, Tafa Fall Bara Couture la n'est-ce mm-hmm. parti ñu xool non bu leen may bës doo xam ba jox ma bu leen mënta bës doo xam sa doom yow daal bu ñu la voilà donc modèle modèle bu Tafa Fall Tafa Bara Bara Couture mhm. euh, euh, ñu bàyyi la keps nga commenté ko robe bu rouge la waaw robe bu la bu rouge ba tey rek xam nga euh, tabaski moom day ànd ak li nga xam ne moom moo di bassin getzner ak yooyu euh, mu def ko robe robe boo xamante ne euh, ci kaw genre taille camerounaise la waaye daf ko def taille nii rek mamboy lañ koy wax mais bii manche trois quarts la. Ah. daf ko defee manche trois quarts. daf ko def taille mamboy quoi. voilà mamboy mamboy voilà mu nekk xam dañ ko delloo si waat mhm, léegi. Mhm. mamboy revisité waat li nga xam ne moom moo di mode yi amoon ba pare amélioré ko mais li ci gën a am solo Pape Cheikh mooy dënn bi daf ko broderie yëpp euh, ci fii nii ci kaw bi mu ko broderee nag dafa def tamit patchwork ba tey mu mel ne couleuru été bi la ba léegi génn na noir ci digg bi génn yeneen couleur euh, daal di koy def nag ci robe boo xam ne rouge la sàcc na tuuti ci rose mu nekk nag robe bu rafet def ko taille bu def ko valant bu rëy ah mu nekk robe bu rafet nag. voilà Vraiment. donc c'est une belle euh, fekkee am na ku nekk ci téléphone bi mën nañu ko jël 88 628 22 22. ak yeneen numéro téléphone yi affiché wu ci écran bi ku dugg rek ñu may la modèle euh, bi nga xamante ni euh, moom lañ leen di présenté ak ñetti créateurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw tey mm-hmm. euh, àndandoo ak ñun ci premier numéro bu fashion musique alors musique bu fashion mm-hmm. modèle yu fashion yooyu lañ leen di proposer preuve baa ngi nii ci ñetti modèle yi ngeen gisagum donc modèle bi kepp wax nga ko léegi nii mu ngi jógee Ouest Foire Tafa mm-hmm. Fall Bara Couture couture robe bu rouge téléspectateur bu nekk ci euh, téléphone bi alo allo. kookan la. kii baat bi dafa neex sax. alo allo. kooku. naka. allo Pape. waaw man yow la kan. wax na Rufisque daal madame Sall. noo tudd. Adja. fan nga dëkk. Rufisque Aïcha xoolal modèle bi en même temps Kebs am lu la laaj alors aji ana waa Rufisque ñu ngi leen di nuyu bu baax di la laaj nag modèle bi nga xam ne moom la ñu sol euh, muy nag euh, modèle boo xam ni dañu bëgg a xam kan moo ko ñaw ban tailleur déggal lii mais <laughs> bravo moom la de Tafa Fall Baara Couture euh, téléphone am di 5 553 00 46 kon aji it am na yëre tabaski Pape Cheikh voilà félicitations nañ ñu ngi lay jël ci suuf comme ça euh, coordonné ak yow pour nga xam naka ngay jotee ci sañse bi euh, avant euh, tabaski parce que tabaski déjà ñëw na mercredi ci la ñuy tabaski am na ñuy tabaski il paraît mardi man nag tembere googu dama cee nekkul xam naa ne bu ñu ko mënoon fomm mbaa ñu bàyyi ba vendredi moo doon gën loo bëggee ñu fomm ko ah, affaire àdduna bu metti rek voilà dëkk bu metti rek <laughs> mais quand même heureusement ba ñun ñu ngi fi pour bégal leen continuer d'appeler on Euh, gërëm ñetti créateurs yi nga xamante ni kenn ku ci nekk dinañu fàttali sa adresse ak sa numéro de téléphone. dëgg la Pape Cheikh ki ci njëkk moom moo di rek euh, euh, Ibra Fall moo génn léegi Ibra Fall Mondial Couture. Mm. Géejawaay la nekk marché Sam en face Sam Notaire téléphone am di 77 942 37 61. deuxième bi nga xam ne moom mooy beneen tailleur bi moo di Tafa Fall Barre Couture Tafa Fall Ouest Foire téléphone am di 77 553 00 46 Pape pour jeexal Jim Création moom mooy modèle bi ñu njëkk a sol moo di rek Wakaam la nekk cité Asecna téléphone am di 77 645 98 47. donc beaucoup de nouveautés ci période bii ñu nekk moom daf ci bokk Momo Dieng euh, mën nañu toog waxtaan ak moom mais en même temps Bass Thioung mën nañu ñëw fekk si léegi nii ci plateau bi. 21h lañ ko waxoon mu ñëw waaye léegi daal lay doog a yegg si amul benn problème Bass ñëwal ngay jaabante <laughs> dañuy xotti sa bi <laughs> nga soo su rob mu dag ñi ñëwal nga toog ak ñun bul dégg. ñoom et puis bas fu nekkoon. bas fu ko neex rek. Uh-huh. fu ko neex rek. <laughs> allez ñu waxtaan. Mm-hmm. ak euh, euh, Momo Dieng en même temps Bas Dog ñu eh, fekk si. Eh, bas Ibrahima. bizarre te la fóon ñu ngi koy fóon nii fóon lan la. <laughs> fóon lu mu doon. dégg naa waaw ah, ba nga fóon naat ko. charnara wala jegewaat ay de sàmm yow yaa nangu kii di la accolade ci télé bi ah rakk ba ci accolade man bi nga ñëwee dama la accolade te sama rakk man yow xam nga ne fu ma accolade ma ah, kon bon ah, yow ko da ngaa bas rek waaw yow nga accolade bas ba pare man accolade bas rek arrêté sa biir gi bas bas fan nga nekkoon dama nekkoon tubaab jalaaw. lu xew tubaab jalaaw. benn hôtel laa nekkoon doon fa gérer rek <laughs> yoon bee xatoon. voilà dégg dama lay dama lay may nga soufflé balaa ñuy waxtaan ci xew. Euh, euh, Momo Dieng Momo ak euh, live bi nga mujjee génnee. actuellement mhm. mu commencé def carton comme j'avais dit tantôt. Mhm. seen jamono dafa tombeek yi xew. internet YouTube tout ça gars yi di ko partagé balaa même public bi di ko découvrir ci télé yi. ak mhm. ak ci rajo yi. tey lan ngay wax sa fans yi nga xamante ni boobu ba tey ñu ngi ànd ak yow nga constant ak ñoom. waaw mais xanaa di leen nuyu rek euh, dama fàtte nag nuyu waa Bargny mhm. <laughs> ndax euh, du ma tàmbali émission te nuyu ma fi nga xamante ne foofu laa jóge foofu laa sosoo mhm. Bargny département de Rufisque maa ngi leen nuyu di nuyu nag euh, Cap Vert yëpp ah ndax Momo Dieng waaw lébu Cap Vert la doomi Cap la fii lañ juddoo mhm. donc maa ngi nuyu Cap Vert di wax nag fan si morceau bi démb la génne mhm. mais dafa génne suma téléphone mhm. xam nga video challenge yi mel ni mhm. dafa sax fay andiwuma ko parce que bon dañ ma envoyé video yi macha allah fan si ñëpp di envoyé ay vidéo parce que dama def benn genre pub ne envoyé leen vidéo yi kan moo ci dàqale kan moo ci dàqale challenge kan mooy ana ana ana mën ñi xam nga nga gis xale yi commencé ñëpp dim ñi ñi xoolal dem salon. ku nekk di wane sa bopp. def ko baax xam nga. Mm. macha allah di ci nuyu soxna Aïcha Azur maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax sama xarit boobu ñoom ñëpp ah, ku lim da ngay jóom fan si def ay vidéo yónnee ma ma dugal ko sama statut statut bi di wàcc. xam nga tamit loolu dafa xew voilà dafa xew. mu ngi noonu xam nga mu nekk lu nice tamit euh, morso bi lu ñu doon fooyee la rek live comme ñun dañu am nañ habitude di def ay live di jouer tous les vendredis ñu ngi Saaraba. Mhm. bon ñu koy jouer public bi commencé di ko bëgg parce que troisième partie lañ ko defoon euh, langue gi mën naa ne mën na nekk beneen morceau sax. Mhm. mais bon li tax ñu def remix mooy bëgguñu laal dara. Mhm. ci li nga xamante ne. moom la ñuy waajal. moo tax ñu def morceau bi Ibrahima du dégg ko bardé quoi. mais pourquoi pas morceau bi. pourquoi pas ko waaw waaw ñu génne ko diggante démb ak tey. Euh, mu dëkk bi yëngu mu ngi def tabaab mooy li nga doon wax rek c'est dafa fluide léegi mm-hmm. parce que mm-hmm. déjà mi ngi wax statut di wàcc xam nga mm-hmm. nag euh, au yooyu amutoon moo tax léegi yëf yi day gën a yomb dafay commencé génne ko rek mu commencé tasaaroo ak sinab yi mën naa ne li nga doon wax sànq rek parce que booy xool morceau langue gi euh, mën naa ne bon ci laa découvrir sinab quoi parce que bon dafa génnee ñëpp attaqué ndoo sinab bi xale yu jigéen yi ñëpp mm. jël man man naa ne sinab bi moo ko moo ko yóbbu fu mu nekk te loolu topp na musique sénégalaise mm-hmm. Mm-hmm. léegi euh, morso bu fi bu fi bu fi dox rek mm-hmm. mën naa ne technologie bi avancé vidéo sinab yeeg statut yi ñoo ko yóbbu fu mu nekk léegi lan nga wax ci super woman lan mooy super woman ah dama nekk wan ma sa superman waaw ah, ndax super woman nga waaw ah, aussi ma ne bon nga peut-être euh, des fois nga dem ci benn langue boo xamante Pape Cheikh. Mhm. da ngay xam ne ku ko mën a ku koy jéem bokkul. Mhm. déedéet. voilà mu ngi noonu xam nga te loolu mhm. dafa nekk loo xam dafa tegu. loolu sax nga tàmbalee loolu nga leen wax ki ko mën a ku koy jéem bokkul. bokkul dafa yemul. ba ba ne ma ne nag euh, loo loo loo loo ba dugg gaal jéeri nangul ne njaay mokkal sàmba yaay faal mën naa dawal su la neexee nga tukki fanaani Louga Linguère loo bañ bañ njombar nangul ne nopp yoo gudd na te mën naa dawal dëgg la muy doon <laughs> donc remix su langue gi la uh-huh. euh, euh, mën nga dem nga may ñu ko yi mën nañ ko filmer ayca nañ ko ah. filmé ah, pour bu leen bàyyi dara ayca moom moo jeex ak remix langue gi live la woon langue gi remix ak euh, Momo Dieng euh, lancement bi lendemain tabaski lay doon euh, Momo qui fait un tabac extra dafa mën a fekk léegi dégg lool sax. mais xam nga xam nga soirée. dégg ak danseurs yi nga xamante ne ñoom ngee nekk. booy dañ lay yàq quoi. <laughs> yàq ba pare amoon nañ ñun am nañ ak ngéwal. ñun mën nañ fecc. dafa làqatu woon rek quoi c'est day làqu rek da nga koy yee rek mu yeewu. voilà en li mu def fii remix bi bi mu génnee ak fi mu mhm. toll nii euh, diggante démb ak tey lan lan la la def. waaw euh, dafa mel ni euh, xam nga langue gi moom mooy langue gi rek man dafa ma mhm. mujj jaaxal sax. Mhm. waaw dafa dafa nekk loo xam ne yëfu yàlla la. parce que tamit des fois dara dina la jikk waaw dina la jikk moo tax macha allah bi ma génnee démb ak tey parce que liggéey la rek. am na looy liggéey parce que dina toll foo xamante ne métier di nga toll foo xamante ne yow par exemple euh, da ngay ubbi sa mën a sañse di nga mën a sañse mën a sañse goo xamante ne mhm. dafay toll foo xamante ne sa armoire bu la neexee sax nañu fay mhm. làmp bi loolu làmp sol da ngay dem mhm. donc euh, bon mën naa ne ay xale lañ aussi mais nag teel nañ dugg ci musique ba pare jàng nañ ko euh, xam nañ tamit li ñu war a def bu baax a baax a baax ba pare aussi bon wayin wi tamit yow <laughs> defe naa dara umpula ci jàng nañ ko donn nañ ko mën nañ ko moo tax mhm. lu ma génnee benn affaire mhm. sénégalais yi dañ koy bëgg mhm. dañ koy bëgg parce que moo Dieng dafa yaru dañ koy bëgg parce que Momo Dieng aussi mën na li muy def donc moo tax euh, may félicité waat euh, sénégalais yi di félicité waat tamit orchestre bi nga xamante ne ñoom ñoo def live bi muy Ndobin Band. Mhm. ñu nekk ñoo xamante ne dañuy yàgg nekk di sonn ci affaire yi. dañuy yàgg def ay live dañu yàgg def ay live dañuy yàgg ay live parce que tamit album bi avant muy génn ñun ñu ngi live. Mhm, mhm. parce que morceau yi yëpp foofu la juddoo langue gi live la juddoo kaay ñu jubboo. mën naa ne album bi yëpp live la juddoo mm-hmm. donc nekk na loo xamante ne underground bi mm-hmm. Mm-hmm. nekkoon nañ ci di ko liggéey bu baax a baax a baax keroog damay dajeek euh, ndeysaan suma suma suma papa pape Cheikh parce que dama noonu nekk di leen jouer just for you ay première partie bon man def naa mën naa ne bon Sénégal première partie sama papa Youssou Ndour rek laa ko te def naa ko playback laa fi deful mais mais bëriwul ñu ma defalul première partie ci mbu temps yooyu just for you. comme ay rek temps yi nga hmm. nekk étudiante di dem di dem di way waaye mu ngi noonu mu nga làqatu di dem dem def bëf <laughs> première partie yow voilà mu ngi noonu mu ngi noonu boo nekkul woon euh, daa naan mu jaaxal yee mu ngi noonu première partie <laughs> aussi loolu yëpp dafa bu nekk ci formation bi c'est bien waaw mm-hmm. ah, aussi tamit bon ki ñu defal formation tamit ci ñi mm-hmm. ñu defee formation ñooñu dañu dañu dañu tàng jër mhm. ku ci mel ni mhm. Alpha Dieng mhm. xam nga ma koy nuyu bu baax a baax a baax vraiment rëccu ma woon lu mënoon tege ci ginnaawam di ma awloo pendant des années. Mhm. ma nekk xale bu ndaw. c'est vrai lu bëri ci sa carrière. def na lu bëri ci sama ah, carrière. Alpha ba dafa lakkal nit ñi ak moom. voilà mu ngi noonu ak rek ma ne ko xool ma bu ñu naan Mangone tamit. le batteur lu bëri loo xamante ne dañ ko def ci man. Ah, ah. ak gars yi nekk ci ginnaaw staff bi mhm. dang seere mhm. ma leen di nuyu di leen félicité waat bu baax waaye di la wax benn affaire. ah lendemain tabaski bari ñi dina xumb trop. waaw mooy mooy mooy actualité bi rek xam nga mhm. momo moom mu ne momo dañ naan momo Sénégal la mais foog naa ne momo Bargny fiefam la mhm. te démontré na ko à plusieurs reprises même ci Petit Gallé bi gis nañ bi nga xamante ne ñëw nañ fekk si ko fa ni nga xam ne noonu la bari ñi dafa wàcc keroog ah, dañ lay témoigner toujours ci grand théâtre également gis nañu mhm. euh, bi nga xamante ne Sénégal moo la wuy si waaye yaakaar naa ne bari ñi am na fa place bu baax mhm. euh, lii nga génne ni sa actualité nga ñëw ci wax ñu tamit yaa ngi wax lendemain tabaski mais ba tey rek yow la ak waa bari ñi yow la ak waa Sénégal moom moom waaw mu ngi noonu dañ def euh, langue gi lañ def remix bon dañ def benn genre mën naa ne live la mhm. bon am na yeneen morso sax yu nekk ci ginnaaw mais bii lañ jot a génne. Mhm. boo defee bon gars yi gars yi savouré ko. ñu jox ko ndéwénal aussi sénégal yi. bii lañ jot a génne mais am na yeneen yu nekk ci ginnaaw yoo xamante ni mi ngi ñëw. Mhm. ah te yooyu macha allah tamit bon. voilà tu vas rester avec da ngay da ngay da toog ak ñun bu ko defee nag ñu tàccee seen te bas <laughs> euh, euh, phénomène la dafa dafa dafa nekk léegi phénomène Sénégal kon kon yees et tous ces propos euh, yi nga xamante ni xewal nañu ko ñii bëgg ñi ñàkk bëgg en tout cas jamono bu nekk ak la cay xew loolu ku ko nangu rek da ngay da ngay noppalu alors temps booy bi mm-hmm. nettali nga ko ba tey mais tey baax na nga ñëwaat ci naka naka la affaire bi ñëwee ba mel nii mu mel waaw balaa dara maa ngi nuyu àdduna. Mhm. di nuyu diaspora bi yëpp. di nuyu sama frère Momo Aïda Keps. di mhm. nuyu yow ak ñëpp ñuy seetaan. di nuyu sama gars yi ñu ma àndal. waaw affaire bi nu mu demee wax naa ko waxati ko. Mhm. mais balaa loolu maa ngi doog a ñëw émission TFM. émission yi ma fi am yu bëri day fekk maa war a dem jouer playback. parce nii nii sax ma am spécial tabaski. mais dama ko bàyyi mujj ñëw. pour ma paree mu ñoo dem. sama yëpp amu jot ak spécial tabaski. affaire bi nu mu demee mooy àdduna lépp lu waay def na naturel. Mhm. nekk ci yow daal. Mhm. affaire bi dafa naturel. Mhm. te dafa nekk ci man nekk loo xamante ni du lu ma nàmp du lu ma euh, ma doonu fenn. lu ma for la mu nekk don ci man. da nga ko rek quoi. li na ci man dara jëngoogul. ah am <laughs> déggoo ma de. Ah, dara dara dara yëngoogul góor lu génne balaa leneen di ñëw. ma xam nga ah. ak luy ñëw. <laughs> man man man. <laughs> man football football laa yaakaaroon sama àdduna eh. ah, sama àdduna tey di nga visé li fekk yàlla léeg la dencal mm-hmm. ma amoon amour tëgg asiko ndax bu may football quoi mm-hmm. ba ma dëkkee suñu koñ HLM da ngay am amour boobu mm-hmm. dem ci biir mais man dégg gee a jaaxal doo géwél waaw eh, xaw ma dafa fréquent voilà quoi àndoog eh, du judd woo ci tëggum sabar <laughs> xam nga loolu loolu loolu loolu day nekk si nit tiiti du géwél du géwal mhm. am na yeneen artistes yu fi nekk du mhm. mais bu ñu nee dara da ngay xam ne ñii ñu ngi fa mhm. des fois don day am dëgg la te nee nañ nee bu yàqu moo moo gën a garaaw géwal ah. bu mokkalee rek ëpp na te man dama am sama style li indi xooluma ci kenn mhm. xëccoowu ma toppandoowu ma mhm. mooy sama way biir ñëw am na si mhm. xëccoowu ma toppandoowu ma damay foog yéen parce que tey jii lépp lu nit di def rek na nekk ci yow te lu nit booy def dara mu nekk ci yow naturellement li daaro na naturel waaw waaw dafa naturel <laughs> xam nga affaire yi uh-huh. waaw affaire yi daal kenn xamul tamit parce que <laughs> adduna maa mën amu fi uh-huh. ndax ki yàlla jàppalee fi ne ak yaama saf ndax ku nekk ak ki la saf ku nekk ak ñi lay bégee uh-huh. tey jii nii am nga ñoo xamante ni kii lañ bëgg am na ñoo xam ne kii lañ bëgg boo defee dara nag mu wóor àdduna du sa mën-mën mm-hmm. du sa doole mm-hmm. du ma ci dara mm-hmm. lépp yàlla la ak sama yaay di ko ñaanal fi mu tëdd gënal ko fi mu jugee di ko ñaanalaat fi mu tëdd gënal ko fi mu jugee ndax lépp moom la di ko ñaanalaat bu baax wala ma ta méng sama yaay maa ngi koy ñaanal fi mu tëdd gënal ko fi mu jugee ak sama yaay yëpp maa ngi bégee mais affaire bi fi mu toll nii bett na la wala bettu la non bettu ma nag parce que ñu bëri dañuy foog ni da nga rek nekk ci dañ ci nekk déggu lu daj lu ne ndax boo nekkee boo nekkul géwél dugg sa aar dafa metti mhm. te man famille moom ba bokk famille bu famille bu rëy laa bokk mhm. man si digg réew mi ci yax bu rëy nga bokk waaw bu bu rëy ku mhm. ma fi nga bokk fi ma bokk ma fu ma taxaw wax nit xam wax leen fi nga bokk fan la man yàq yaay Baba Diagne noo nga fari ma te borom bind bi kuñ la tuddee maay Mataari mam Mataari Mbaye Diagne Bassirou Diagne dafa fekk ni àdduna ku nekk ak fa la yàlla jaarale dégg nga moo la déggoo ma ku nekk ak sa yoon bas bu fi nekkaatoon ndax di nga taasu non non man li may def du taasu. Mhm. man musique commerciale laay def ah musique commerciale. taasu mooy damane. assuré na mhm. dafa di man question réponse laa def. Mhm. li def nii da ngeen si gisaat yeneen. question réponse lu bees la lu bees la lu lu bokkul ak maa ko moom ku ko ñëw tamit da ma fekk si te si tamit da ngay sonal sa bopp. maa ko moom man maa ko moom. <laughs> am indi. lan la la apporté lii nii lan ban paa paa bi lan la la apporté. andi na changement bu sa jaga daf may tooj waaye yàlla baax bi amul benn problème yëpp nag. waaw li indi sama vie bëri na trop. <laughs> ndax xamal na ma ñi ma xamul woon. ndax mhm. àdduna nee nañ yokkute mooy nga xam koo xamul woon. dëgg la ay da xamante woon. Mhm. lii tax na ñu xamante. Mhm. moom moo xamante woon nañ bu yàgg. muy sama frère di nit ku baax. yokkul na ma loo xamante ni tey jii boo toogee ba guddi toog ñu woo la benn xale boo am ñu naan la ay xale pour ñu nelaw son bi la ñuy déglu. Mm-hmm. Euh, di nuyu di nuyu Kumba chéri Mansour Jong parce que doomam ni ñu xamante maamam téléphone la ma woo. Mm-hmm. sama doom de pour mu nalaw foog mu déglu sa waay. Mm-hmm. ba ba suñ ko tegul day xaru noonu sinon du dégg du nalaw. ma seeti ko. parce que adduna moom mooy loolu daal xam nga. <laughs> seeti ko papa ji teral ma. te musuma ko gis. dama ko woo téléphone ma woo téléphone mu wuyu ko ñu waxtaan rek. Uh-huh. kon te ji wane nañu loo xamante ne parce que ñi te gis fu ne du ñu woo téléphone fu ne dafa ma toog joxe sama numéro. ku ne ku ne fu ne fu ne appel kon mu ngi defal loo xamante ni tey jii na yàlla xeeb dool yi hmm. parce que dara xew mooy projet yi hmm. studio ko yoon hmm. mais studio kay <laughs> Pape Cheikh amul dara luy teggeeku dara lu léppay teg parce que ma génne lu bees muy good morning xawaar yu good morning xawaar yu mm-hmm. mu ngi waaj a génn mm-hmm. fecc bu bees la loo ci wax mais li mu ci wax ak a <laughs> su ma la ne Pape Cheikh yow are am good I am fine <laughs> waaw su ma la good <laughs> morning how are you nga nga fecc ko fecc bu bees di ko gis léegi ah bon ak yeneen ak ubbukaay ubbukaay tam day ñëw ubbukaay day ñëw tàng na war naa ñëw léegi daa tàng te dara fajul tàngaay bi dara ubbukaay rek xooy faj di ubbu climatiseur yi des fois mu yàqu nga fay lu cher uppukaay nga jënd cent franc du upp waaw ma waaye loxo bu tokki ah da nga naan wuy dafa tàng ëpp leen ndax bu fee gaay naan ki jajja ki jajja ki jadd ki jadd ki jadd bu rajja ki waaw kay bul dafa tàng neex na <laughs> te te te dara xewagul léegi dara xewagul nañ gis nga gis nga gis nga c'est pas pour rien ñu ñu indi fashion musique bi c'est-à-dire wax naa ko ay décembre léegi da ngay gëmm xippi dégg lu bees affaire bi dafa dafa accéléré ou quoi grave grave ana faral faral ana nga Papa Mbaye ana nga Papa Mbaye kaa jege si waaw ñëw leen ayca ayca ma jàppal leen gàmm baba kaay ma téyel leen gàmm waaw leen sama gars yi ma leen gàmm ñii nag ñii <laughs> su ma nekkoon loolu ki moo naan kon yees. xoolal mooy simple li ñu doon wax rek. <laughs> fa da ngeen ni puudar ngeen gis kii moom mooy puudar ay kilo puudar lay <laughs> jël. mooy mooy def kilo puudar waaw sama gaa ngi ni ban gaa ngi ni baabaa ngi nii uh-huh. xam nga lii c'est la famille. c'est la famille waaw lu bees bu bees bi ñoom mën nañ ko. ñoom mën nañ ko kay. waaw léegi jàppal leen gaam ñu ñu ñu jàngale takin moom moo jàppal gaam. jàppal gaam takin takuran takin takuran takin sama. wuy dafa tàng puule. bu feex fa del ki jaay jagi jaay jagi ki jar ki jar ki jaaw bax ran jagi ay waaw kay paap seex ëppul dafa tàng jagin gin jagin waaw kay yow faa del ëppul dafa tàng. ëppukaay day day day law. papa yu arfa waaw kay jag I'm fine. You are fine. Wow. I'm good. Hey, I'm fine. good morning. How are you? Hey, what? Kita jatin kita. Good morning. How are you? Kita jatin kita. Dila ko dagal bu yegali. Nañ ko yamale foofu rek. Ah, ba yegali nag. Pam ci xale dañuy jël sa yëf. ah liggéey daa métti. non lii moom feeñ na fépp yaa ko. non non non déggoo ma de. ah good morning how are you parce que da nga tàgg. may ñu ko. bravo. kenn dootu ci wax dara kenn dootu ci wax dara ak ak carton bu doy waar bëgguñu woon jeexal sax mais mm-hmm. bon il faut ñu ñu tàggatoo nag ba samedi prochain ñu dellu si waat ak yéen euh, ci fashion musique mhm. euh, euh, Viviane sera avec nous dinañu jaabira y aura d'autres nouveautés yoo xamante ne actuellement ñu ngi def carton bu extraordinaire fii ci Sénégal ay dañu ngi gërëm di la féliciter encore yaa ngi ci projet yi yaa ngi wàcc yu am solo diggante Sénégal Linguère mais ki jar gërëm nag mooy Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne mu dugal loxoom bu baax ci programme bi nga mujjee def Grand Pape Cheikh euh, bala ñu may quitter plateau bi dama leen di remercier yéen waa euh, TFM mm-hmm. parce que aussi liggéey bi ñu liggéey ci euh, événement bi mm-hmm. c'est à saluer commencer ci njagandoor mm-hmm. wàcc ba ci technicien yëpp yow moom jarul may wax parce que yaa njëkk wax sama nga yaa grand théâtre bi ci ci sa émission QG waaw tonton Aly nag moom duma mësa jeexal ci di ko way di ko di ko remercier mm-hmm. Mm-hmm. parce que tamit tey euh, jàppale na ma si sama jàppale na si sama carrière mm-hmm. parce que tey su ma taxawee grand théâtre tey c'est grâce à lui parce que moom moo génne les moyens qu'il faut pour ko ma dem grand théâtre di remercier waa Jolof waa Bawol Mbàkke Bawol bi ma dëkk ak waa Linguère bi ñu paree nii grand théâtre euh, sama première sortie dama ne du ma dem fenn mhm. daara jolof la ñuy dem incha allah le lendemain de la tabaski jeudi donc ñuy wax waa daara ñoom ñëpp ñu xaar ñu incha allah concert bu mag a mag a mag la ñuy def foofu ci stade bi incha allah le le de la tabaski euh, le samedi 25 incha allah dañuy dem dëkku tonto Aly Ngouille Ndiaye Linguère Linguère foofu la ñuy def aussi concert bu mag ci ci ci Pont Sainte bi mhm. euh, di remercier nit yi nga xamante ni nii tey jii tey laay am occasion toog TFM pour mën a remercier nit yi nga jàpp xam ne dañu jàppoon ci grand théâtre ba mu am mu réussir mm-hmm. ku gis ne grand théâtre xam ne Aïda Samb lépp lu mu sol gongo la ñu wax mm-hmm. te wax dëgg yàlla ay nit la yoo xamante ni ñoo si jàpp ku ci mel ne Matar Vision Couture mm-hmm. grand théâtre ba tey ma lii ma sol nii tey sax moom moo ko ñëw ku ci mel ne Daba madame Samb li ma def ci sama bopp moom la Sénégal yëpp di wax Aïda Samb sa perruque sa perruque Daba moo defar yëpp ma wax dëgg yàlla ba Sénégal yëpp apprécié Kentra di ko remercier mhm. parce que moom ñëwal na ma ay ñaw yoo xamante ni tey spectacle rek laa ko mën sol mhm, mhm. waa di euh, remercier may sa sant yàlla boutique bu baax a baax a baax di remercier nag euh, sama sama ay mbokk sama ay xarit sama ay àndandoo sama ay àndandoo les amis de Aïda di jiital nuyo bi di ko teg ci loxo Karim Niang ak La Lyon mhm. bu Aïda Samb bu nga xamante ni fépp fu Aïda Samb nekk euh, dafay def fi mu nii lu ko yóbbu daara lay lijjanti <laughs> ak ñoom maam Jaara ñoom ñëpp eh. di nuyu nag sama sama sœur mhm. euh, Amina Doudou Thiam mhm. tey jii am na loo xamante ni sax jarul may toog plateau di ko wax Euh, di remercier sama rakk joo xamante ne nii je pense que elle est la seule personne bu may euh, fréquenté boo xamante ne nii moom ak maman mbay muy mhm. sukkee na jaw sama rakk ak maman mbay mhm. di remercier sama sama sama ami d'enfance boo xamante ni maak moom mën nañ toog 10 ans ñu gisante dañu mën nañ toog sa 6 mois duñu déggante muy Adja Koumba Mbor Sall maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax ak euh, Mati Ndiaye jabaru Abdallah Thiam. Mhm. ñoom ñëpp dañu jàpp ci guddi gi ba guddi gi am euh, une réussite boo nga xamante ne nii euh, doy na waar. Mhm. di remercier tamit sama rakk bu nga xamante ne nii. Mhm. Mm, lépp lu ma def ci maquillage. <laughs> moom moo ma ko defal muy rugi seen make up. fu ne laa koy jëmee fu ne laa koy yóbbu heure bu ne laa koy woo te wax dëgg yàlla mu nekk xale bu disponible fu ma ko woo mu jóg. boo nekkee nag si plateau peut-être dangay ngay fàtte. Ah, ku lim juum da ngay lim boo limee rek da ngay da ngay juum te tey mën nga lim fàtte kii. kee mer kii mais képp ku nga xamante ne nii rek. Mm-hmm. yaa ngi safoo ay décembre bëgg ay décembre te taxaw parce que sama grand théâtre bi ci laa jàppee nit yi. Mm-hmm. ci laa xamee lan. fiñ la toll ci laa comprendre exactement lan mooy. mën naa ne xamoon naa lan mooy àdduna mais mhm. j'ai compris ak grand lan mooy ku la jàpp te yàlla rek tax lan mhm. mhm. ñi la jàpp te yàlla rek tax ñi la jàpp te dara tax moment yëpp lañ lay jàpp parce que yaa ci moment yooyu ngay xam ne du ma fu jógee nag te remercié wu ma Ibrahima Ndour sama xuloowaale maagi moom <laughs> un mois la ñuy juboo xuloo onze mois mais loolu yëpp si di ma jaarale ci yoon bu baax pour ko sama liggéey euh, jëm kanam da euh, am di jëm di di di avance ma di ko remercier bu baax fi mu toll ñu ngi préparé benn remix yow rek. ñu ngi koy waaj a remix remix bu bu bu mhm. te incha allah ndewenal lii mu ngi nekk <clears throat> vidéo bu bees. Mhm. bu bees tàkk incha allah dinañ ko jox. Euh, euh, sénégalais yi ndew na bëgguma lim paap su ma limee mhm. rek damay jub mais maa ngi remercier ñëpp euh, di kontaan sama xol dafa fees parce que li ma bo li nekkoon sama xol yëpp pour ma wax ko. day métti mun ma ko di remercier une personne boo xamante ne nii mënuma woon jug ci plateau bi te tudd ma ko muy Yves Diaw. Mm-hmm. mu nekk sama jabaru mag. Mm-hmm. sama jabaru cousine. Mm-hmm. dafa jàpp ci bés bi taxaw ci taxawaay boo xamante ne nii c'est extraordinaire sama famille maa ngi leen di nuyu en commençant famille bi yëpp. tout le monde bàyyi ma kenn. tey ko ci loxo mère Soukay rek mu joxe ko. tey c'était l'occasion <laughs> waaw c'était l'occasion pour que ma grand théâtre bi ba léegi wax mhm. dëgg yàlla ma am plateau bu mel ni pour mën a remercier ñëpp ñu jàpp si di remercier les artistes ku ci mhm. mel ni Momo mhm. Momo Dieng Pape Diouf ñëw na mais jotul yéeg sur scène euh, Birahim ak ñoom maire Sodo Mama Fall Tata Kine Lam artistes yi nga xamante ni ñu ngi fa woon yëpp maa leen remercier euh, di leen wax sama xol sedd na merci tout le monde ñun tamit kontaan nañu rendez de la tabaski à Daara Jolof mhm. euh, le 25 incha allah. Euh, Euh, Linguère. Mhm. semaine bi ci topp je pense que week-end bi ci topp ñu ngi en Gambie incha allah. c'est vrai que euh, gërëm yenn saa yi dangay ngay bëgg a tudd ñu nekk sa xol ñëw uh-huh. te jàppale la mais dafay metti euh, mhm. defe naa tey li nga wax am na solo léegi mu def daanaka ay semaine mhm. man ak Amina ñu ngi xool naka la ñuy defee émission spéciale boo xam ne di nga remercier képp koo xamante ne jàpp na ci grand théâtre bi tey occasion la woon ci fashion musique bi nga wax ci du doy di nga dellu si ci yeneen programme c'est ngi lay ñaanal reste comme t'es bul bul changer li la sénégalais yi bëggee euh, xëj na wan nañ la tuuti lañ la woon ci grand théâtre bi ñu ngi xaar yeneen mm-hmm. euh, yéene nañ la ay disque d'or yéene la tournée internationale yéene la salle yu mag yi nga xamante ni euh, ñu ngi nekk bitim réew te defe loolu mën nga ko am ndax talent baa ngi fi yar baa ngi fi te loolu la soxla ci artiste donc bonne chance pour suite bi di gërëm sa staff yëpp Amine Abdoudou Thiam moom defe naa dafa dem ba dafa dama naan ko da am manqué ndax xol bu rafet xam nga xol bu rafet saa yi da ngay ni sama <laughs> papa da toi aussi euh, Amina ñu ngi koy gërëm et puis gërëm sa staff yëpp euh, ñi ngay liggéeyandool day xeex ku may xool ci moom parce que suñu ànd nit ñi dañu yaakaar ne euh, ci grand théâtre bi la mhm. Amina Doudou Thiam mhm. maak ak moom bi may dugg dugg Dakar mhm. man ak moom ba léegi te am na éducation boo xamante ne ni tey nit ci dañ koy gis ci Aïda Samb c'est grace à elle dafa def ci man lu bari éducation bu extraordinaire tey jii am na lu bari loo xam ne ñemewu ko xalaatuma ko def mhm. parce que xam naa ne bu ma ko defee mhm. la ma cay fekk du ma neex mhm. donc seen euh, c'est seen c'est ma c'est ma grande sœur c'est waaw fa la fa yam di euh, mais boo continuer da ngay jooy de <laughs> non non mais dinaa remercier nag une personne boo xamante ne dëgg yàlla waaw bàyyi rek ma kon une heure du matin remercier une personne boo xamante ne franchement il faut ma remercier ko malgré maak moom sax fi mu toll nii dañoo nekk ci ci ci guerre bu métti muy jaaga jeey <laughs> eh eh. une personne boo xamante ne wax dëgg yàllam mu bëgg ma wax dëgg yàllam heure bu ne laa koy yëkkati mhm. mu dem doxal ma samay lu ma ko mën ci doxloo mu di ko defaloo très bien ma di ko remercier merci Aïda merci Aïda ñu ngi lay remercier bu baax sa teewaay amoon nga occasion remercier ñi nga xam ne ñoom nga waroon remercier Momo également ñu bàyyi ko le mot de la fin waaw xanaa vraiment di kontaan lool ci plateau bi aussi parce que tamit defe naa bi mooy premier numéro bi ah, ñun ñu ñëw euh, bon participer ci émission bi loolu dafay nekk lu lu ma neex trop vraiment di nuyuwaat Aïda di ko félicité waat bu baax a baax a baax ndax dafa nekk moom ku baax ku rafet xol ñu dajee émission bi ñu doon def King FM dama nekk ah Grand Théâtre yow. boo tëddee nelawal ndax àdduna yëpp dañ ndax di nga ci am ndam di nga ci am ndam lu rëy rëy te macha allah gis nañ loolu artistes yëpp ñëw wuyu si ko tamit bu fekkoon sax Sénégal rek a ko wuyu si mais moroomu artiste am yëpp ñëw mhm. wuyu si ko kon baaxam la may félicité waat suma frère Bass <laughs> moom it di ndaanaan xam nga Kebs vraiment di kontaan lool teew fii kii moom moom defe naa moom sama sama kilifa la sama lépp am 14 ans la la waaw ah, mu ngi noonu mu ngi noonu defe naa moom moo jiitu ci man <laughs> koy voilà di nuyuwaat fans yi rek mhm. ndax euh, mën naa ne di di di jouer mu constant tous les vendredis te fans yi dañuy ñëw di la fekk c'est tous les vendredis ñuy nekk Saraba waa Médina di ñëw waa HLM Grand Yoff waa Grand Dakar Dakaru yëpp waa Pikine aussi géejawaay parcelle 1 ba 26 banlieue bi ñëpp ñëw di la fekk si ñëw ànd ak waa Bargny ak waa Tëngéej xam nga ne loolu yombul hmm. tous les di ñu fay nekk fans yi di di ñëw di ñu fa fekk kon du ma def lu dul di leen gërëm di leen sant bu baax a baax a baax waaye it di nuyu nuyu nag ñi nga xamante ne ñoo ñooy jàpp ci combat yi hmm. ah ku ci mel ni madame Ba Aji Gueye yaay Mamboj Mamboj Couture di nuyu sama yaay nag euh, Fatou Kende Ndour hmm. di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu bon ki nga xamante ne mooy asis Diagne Pia ak Aziz Aziz Aziz Diallo di leen nuyu bu baax vraiment ñu nekk ñoo xamante ne dañuy jàppale Momo Dieng bu baax di nuyu waat staff bi yëpp di wax ne peccum liir bu neexee ndey jàpp ca wagg yo kon lépp ñoom la saf ndobin band saf dang seere di nuyu ñëpp di kontaan ñëpp ku lim da ngay jóob mhm. donc rendez-vous lendemain tabaski ñu ngi ñi waaye sur lendemain ñu ngi five almadi jeex voilà kontaan nañu remix Bass merci euh, projet yi lan la waaw di sant ñëpp mhm. parce que fii ku ne am nga ñu lay jàppale mhm. nit ku kase nii rek ñun benn lam rek yënguwul daal di sant euh, Mamadou Yatta Saay sama papa. Mhm. waaw di ko santaat bu baax. Kumba Chéri Mansour Jong. Mhm. Ah, yaayu Mouhamadou maa ngi koy santaat bu baax. Calal mhm. Fatou ak waa HLM. ndax man pap HLM dañu ma def noo xamante ni ah mënu ma def lu di leen sant. ndax doon naa def benn événement bu yàggul ñëpp a génn. xale yi def hôtesse hôtesse yëpp maa nga leen di sant. di sant HLM 1 ba 6 Medina di sant Ndakaaru. Cap Vert gi yëpp maa ngi leen di sant di sama fans ak ñi may ñaanal te xamuñu ma ak ñi gis ñu bégee te xamuñu. Mhm. ba du si la Sibéeru Laa Sarr. Mhm. laa maa ngi koy sant bu baax coo bëggee sama gaay yàlla na jàmm yàgg naa leen ñu xaar yu bees yi ngi ñëw clip mhm. bu kon yes ba léegi génnagul de mais lu tax génn mu ngi yéex de stratégie la ah, defal jàmm jeex na kontaan nañu <laughs> merci Kebs merci à toi Pape Cheikh may remercier bu baax tamit partenaires yi nga xam ne yàgg nañoo liggéey ñoom ku ci mel ne Adja Ombelico pour la tunique ak jean beeg yëpp di remercier également Neyman coiffure téléphone am muy Nene Diallo Sacré Cœur ci petite tête bu baax bi ci tabaski bi ku fa dem rek 33 14 45 Neyman Ombilico merci à toi Pape Cheikh voilà donc Fashion Musique chaque samedi Cap Sagman ci télévision Futur Média merci à toute l'équipe de production dirigée par Tonton Mac Pape Samba Thiam équipe de production bi yëpp Koulim Dioum ñu ngi leen di gërëm soirée bi dafay continuer ci télévision Futur Média ak Boops ci Dakar ne dort pas ciao wutal sa kër bu sol sa yére yu fashion yor sa oto bu fashion am àndandoo yu fashion